ay ay sofisi ee bay soxna ay da taw bi kën ci taaw yee soxna ay desi bay Cheikh Mohamed sama sëriñ sama xarit sëriñ bay si man sooray baayam sëriñ man sooray baayam Sofiya toy sofiyatu aram bonko soxna sofiyatu mi nu duppe yaay sofi si ak la la seet ne tusi ak Sidi Mohamed ak Mamal Fasi ak Umu Kalsoom soxna fat ba me tey zet yaayo naa taag baroome ca ndaaru géey wali bugguma ci am ni ci xaay dégg um xayri dabba soxna xadi njaaye yaayam meccul maram ñang kolle moo di maram ñangal bu bab maamu jaay xayri da baax loo ko gën bàyyi ko koy baayu mbay si abdo soxna Xadi Njaay yaaya moo alaaji Blaise da baax Sofiyatu aram bonko nguy Njaay birom xujja mbaalo Njaay birom xujja tam Alaaji Maalik ay baayam Maam Usmaan ay baayam Tamsir Demba Bun ay baayam eh Maami Cheikh Mohamed sama sëriñ kooku soxna ay dayaayam diine ji benn la penku benn la waaw waaw diine ji benn la penku benn la waaw waaw Aziz Dabaxo lu ay sa gannaaw la yaay biram xuja tab moo looy sa gannaaw la ee baayu ay dese yaay kaltoomo eh bayu so fi da baaxoo looy sa gannaaw la bee danga naan sax moo dakkaay xelam alaja bi la si sa mbaax su fi torom bokko gani sayu dan wa yonen be bu njaay birum afe afe la ngañ xarit Mbàkke bàyyi sa fi ya toog a moni won taw tawja jalalatin sabran khalbikum salima ya mu di bal xawli soodin wal bayaadine e, Abdou Aziz Dabakho gannaaw sa gannaaw laa waaw waaw jërëjëf làmbeen bi ah, loolu neex na lool walaay ndeysaan ah, xam nga ndeysaan Sénégal mooy Sénégal walaay dëgg la Serigne lu moo ne woon man maay Sénégal dëgg la bàyyi soxna may ñu ne ko lu tax mu ne alaaji mu ne Serigne Bambaay sama baay alaaji Malick sama nijaay wallaahi mooy Sénégal kon maay Sénégal dëgg la de kon xam nga nag man. Uh-huh. yàlla dafa def lenn loo xam ni dama am ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay. dëgg la. kii moo jur sama yaay. Uh-huh. kii moo jur Jaal Mbaay. Uh-huh. moo jur sama tànn asukan. dëgg la. yaayi Abdou Aziz Dabaax. yaayi Abdou Aziz jur Alaaji Daaw Góor jur papay Fat say Mbaay. dëgg la yaayi Kumba Kaw la. ñooñu seen yaay ak ki sama yaay ñoo bokk nday ak baay. dëgg la de. ñu ni sama maam Tiwaawoon. dëgg la de. sama maam buri la ñu indi Tiwaawoon. dëgg la. may gàmm si at mu jot. Mhm. di ñëw di dal nag ak ajartu Ndella Wade mi nga xam ni Alaaji Brésil da baax rek la gëm. da baax rek la gëm. di yaayu doxandéem. ba mhm. ko fekkee Tiwaawoon. Mhm. di nga xam ni kii daal moo bëgg Alaaji Abdou Aziz Dabakh. wallaay dëgg la. fonk Alaaji Abdou Aziz Dabakh di yaayu doxandéem. te li muy bëgg bëgg Dabakh. waaw euh, euh, surtout euh, Serigne Massamba Diop Samb la seexu Serigne Bamba bi. moo jëkk a jébbalu ci sëñ Bamba. waaw kon mu ya mu boole ñaari grade yooyu. lii ay Sénégal. mooy Sénégal Alaaji oh. Fall moo ne maay Sénégal. dëgg la Abo mi rangoo ñaari tarixa yi. dëgg la. baayam tubaarkalla yaayam di Cheikh Ibra baayam di Alaaji Fallilu kon Sénégal mooy Sénégal. dëgg la. lépp benn la. dëgg la. kenn ku nekk nag wax dëgg yàlla di nga am foo féete. féete mënta ñàkk. ragal péete day dëgg la. kenn ku ne yàlla may na la. dëgg la nga am nag foo féete. dëgg la. waaye yàlla dimbali nañu tamit ba ñun ñii ah boo demee tuubaa bu màggal jotee da ngay gis waa kër El Hadj Malick. dëgg la. waa Ñaseen. waa Laayeen. waa Cenaba. waa kër Cheikh eh, oh, tubaarkalla macha allah Cheikh Abdou Khadir Jeylani waa kër Cheikh Ndeye Thialaw waa Cheikh Omar foutu ñep nga gis len ci magal gi so ñewé Tivaouane aussi c'est la même chose barki dem mo Ndiaye ci ubi tek eh, juma ju jumaay Serigne Bamba ju mag ji ci dakar senegal a dajé won Tivaouane nak o serigne Bamba la ñaari la yalla fay ñaari guddi Ndakaaroo ñep a ñëw fekk ci Serigne Mountakha ci masalikul jinan loloy senegal waaw loolu day loolu day ku ko fekkee ma ci ndokel Alaaji Mbakk fay deug la da ci jërë mi ci sin di koy bu baax ndax mënoo tudd Masalikul Jinaan te tuddoo ko. baayu bàjjan soxna. tubaarkàlla macha allah a ah, ñaari guddi sëñ Tuubaa yi ci Ndakaaru moom la ko mhm. yàlla fayee Masalikul Jinaan. dëgg waaye bésub keroog tarixa bu ne gis nga ko. ba pare ñu lal nag mbalaanu wasifa. mbalaanu wasifa. waaw loolu loolu loolu loolu dàq loolu di Sénégal. wallaahi.

Euh, Fatima moom moo ko def sa xol sa xol sedd na de. xol euh, sedd na xol bi tooy na parce que bu ñu xoolee depuis sànq ba tey li nga xamante ne junj nañ ko ci relation yu dox suñu kilifa yu màgg yooyu noonu. Mhm. Euh, sa xol dafay sedd tey gis nañ sunu yaay mu nekk mag boo xamante ne ñëpp dañ ko respecté. ci monde culture bi. Mhm. ñu koy jox wàccuwaayam bu baax a baax macha allah. Mhm. tey it tey bëgg naa xam tey ji gis nañ ne relation bi nga am ak famille religieuse bu ci mel ni ci yaa ngi koy wax léegi nii ci li ngeen bokk loolu yëpp tey coow li bëri na lool ku nekk ngi fëgg sa dënn surtout nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy tout tànk yi suñu genre gi nga xamante ne ñoo ëpp si réseaux sociaux yi sax booy xool ñoo fay nekk di wax euh, lu nekk tey yow sa kàddu dañ koy déglu parce que say woy man mii dama koy déglu keneen ak keneen noonu boo koy déglu kii waaw man de lu baax daal moo baax ak lu rafet dëgg la ah kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk ngank l'islam bi ñun ndey suñu kër dañoo baaxoo ndax Cheikh Muntaxa mi fi nekk sëriñ Cheikh Mati lay sax bi mu fi nekkee daf ni bëggatuma dégg kenn kuy wax naan mourid wala tiijaan mhm. ndaay borom juróom ñaari sóoróor ya dafa naa ni sëñ Muntaxa kenn ku ne xam na ko dëgg la mbakk yaaram wallaay ragal yàlla lool borom mbégte mi te tubaarkalla macha allah mo fi togal serigne touba kon nak yaakaar na ni man na baña am dara luy tirayma ak wax man na ñak ndax ku nek rek yalla moy am xol nga deggal ben bor ñi dañoo nek ay murit sey ci serigne touba lolu fat ñi nek ay tiijaan seey ca fanu nek lolu sunu borom def nako ñi nek wa kër Abdou Khader jeylani sey ci Abdou Khader jeylani ñi nek wa ñasen seey ci waa Ñaseen laayeen waa Cenaba waa Kër Cheikh Omar Fouti man dama toog dama yaakaar ni xanaa dañu seetaanul euh, plateau yi xooluñu mag ñi ndax yi yaakaar naa ne kenn ku nekk vraiment fa nga bokk wane nga ko jëmmal nga ko ba Sénégal xam ci loo xam ne sax xamuñu ko woon wallaahi ñi nga xam ne ñooy ñooy firi alxuraan wax ci loo xam ni wallaahi da ngay da nga yow sax da ngay yéem wallaahi dëgg la man keroog bi ñuy wax bi ñuy se bi ñuy wax Abdou Khadre Jeylaani di wax suba Cheikh Omar Foutiyou di wax ñeneen man de ñëpp laay déglu. dëgg la. billaahi wallaahi wa taala. rawal man ñëpp bu ne nangul naa la la yàlla jox. Mhm. te terewul ma gëm Cheikh Ahmed Bamba. dëgg la du yàq dara kon daal loolu laa d'accord. ku ne daal na nga nangu la yàlla la yàlla jox daal. wallaay ku téye bu baax. man daal ku nekk la la cër yàlla jox ah, nitu yàlla day gaañ. Ah, nitu yàlla day gaañ de. wallaay dëgg la. billaay nitu yàlla day gaañ. ku nekk na jël. li mu moom rek tubaarkàlla te bàyyeek keneen. wallaay lamu mu moom. wallaay dëgg la su ko defee rek Sénégal moom fii jàmm rek a fi am. kese ndax bu woon kilifa diine yi kon kon kon Sénégal du mel nii. kon mu gën a ngi dégg kaa yi ngeen di dégg di ko dégg ci àdduna bi. wallaay. dégg ay ay ay cent mille morts. wallaay. coronavirus bi dafa nga ne kilifa diine yi fi tëdd nga defe ni te jàpp nu ci nag. bu du woon ñoom mu gën a metti. Ah, nan sant yàlla. dëgg la. te ñaan suñu borom mu teggi ko te ñun ñëpp nu bokk boole suñuy xol boole suñuy xalaat te nekk benn lu ñaaw daal moom baaxul ah man de man de du ma seetaan sax. yàlla xam na ne du ma dégg xool ay réseau. déedéet déedéet ndax loo xam ne boo ko xoolee doo ci jëlee dara soo ko déggee sa nopp da ngay yokk sa bàkkaar te nga woor. dëgg la balaa caag nga nga nga jaamu yàlla rek ndaw ndaw ñooñu nag ñooñu ñooñu tax di wax ba nga xamee ni bëgg nañu ñoom tam ñu ngi ñuy suivre ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook moo xam YouTube euh, euh, ci suñu support yëpp plateforme yëpp ñu ngi ci suivre bu baax dafay baax ñoom itam li mu wax léegi ni moom la Serigne Fallou bokk ak euh, ki nga xam moo di Alaaji Abdou Aziz Dabakh dafay baax ñu xam yooyu gën koo fësal moomu bëggoon naa xam bëggoon naa xam ñoom mag ñi lan moo nekkoon seen force ba ñu mënoon a nangul kii nangul kële nangul ka ca des buggoon naa xam loolu parce que force boobu. ñun moo ñu manqué ah. ñoom woykat yi parce que euh, xam nga ñoom mag ñi dafa am leen yàlla baaxee ñoom euh, wane na ko léegi bu duggee ci kër euh, Serigne Bamba bu ko wayee nga ni kii murid Sadikh kase la. dëgg la bu duggee ci taalibe cheikh yi nga ni kii kat taalibe cheikh la. dëgg loolu force boobu noonu bëggoon naa xam lan moo leen ko may yéen mag ñi buggoon naa xam loolu. waaw yàlla def na nekk ñu gëstu. di xam ni ñu bokke ndeysaan mas naa mas naa woy bi ma woyee El Hadj Abdoulaye Dabakh ma woy Umu Kalsoom. Uh-huh. Cheikh Madou Moustapha Fallilu sama sëriñ bi ma woon yonent yàlla Mouhamed moog El Baara daf ma bi ma ñëwee daf ne ma ni nga ko woyee rek noonu rek la de. noonu rek la demee de barki sëriñ Touba. sëriñ Mbaye Sy Mansour mu baax mii. Uh-huh. fekk naa ko Abidjan keroog damaa yéemu ndax man. taalibe laa su ma leen suma su may ni may comporté woo su ma demee Touba tubaa ne may sukki ci suuf ñemewu ma toog ñu toog ci kaw man ma toog ci suuf ci suuf laay toog. wallaay dëgg la. ñu teg ñu teg aj mu ma kaay aj ma ne ko laay laay la sëriñ bi kay ba damay xaar ba nga ba nga desal rek. ndeysaan mu ne ma déedéet ni yow sa woy si dem ba moo ma ko wax de sa woy dafa yeete. dëgg la ma woy Umu Kalsum dikk fekk fii El Hadj dabaax Aziz fii ci pom bi mënu yóbbu moom. fekk fa soxna tabara alaaji abdu eh, mu ka som ni ko papa day ki na laam mi moo la woy sëriñ bi maa ngi ko fekk ndeysaan mi ngi wéeru mu daal di ne ma ah man de sama xarit baa di ngay julli bu baax ma ne ko waaw benn waxtu du ma raw mu ma kon xaritoon na ma ak yow ndax man sama xarit damaa bëgg muy julli. macha allah. kon ñun bu nu yàlla mayee ñu gis kilifa yooyu fekkee seen jamono. Mm-hmm. jamonoon teg Cheikh Ahmed ba gis doomi sëñ Touba yi yàlla may ñu gis njabootu sëriñ Touba. Mm-hmm. te gisuñu dara lu ñaaw. déedéet ah ku ñaawal de yaa xam waaye ñun de ci lu baax ñu nag ñun xaw man ki ne Xaadim Rasul day sëñ Bamba rek laa gëm mooy sama sëriñ waaye day fu nekk am naa fa place ndax sama yaay ji ma jur daan wax naan Fatou Kiné ma ne amu ah, ni ma. man de sama yaay dafay gàmmu ji Tiwaawan ndax yaayam moo fa nekk. dëgg la moog yaay ma bokk ndey baay. dëgg la donc man sama yaay bu nu xamee Tiwaawan tey mbokk moo tax sama maam moo ne Tiwaawan. say sang lanu. may ah? seen jaam. may seen jaam. yaay ñoom ñoom ñoom ñoom Fatou Seye Mbaye. man may seen jaam. Mm-hmm. parce que seen papa ak sama yaay seen ñaari yaay bokk ndey baay. dëgg la ak Adja Diall. Diall sama yaay la. Diall Moussa Ale. moom sama yaay seen ñaari yaay baay. dëgg la waa bokk kooku nag. kii indi ko Touba kii indi ko Tivaouane. wallaahi. waaw sama yaay di jóge Dakar di ñëw Tivaouane. di gàmmu si may ànd ak moom. kon ak ak feneen. dëgg la kër bu Kunta Ndiassane. wallaay. ñëpp benn lañu. fii daal euh, dara lu xajam amu fi. wallaay ba nag waaye yow yow ku fi amul xaritub Tidiane wala amoo xaritub Xaadir wala amoo xaritub Laaye waxal. amul. ah ku ne am nga te wala amoo géer gu nekk laayeen wala amoo géer gu nekk xaadir wala géer gu nekk fépp la ñun dañuy dem fépp. ndax cawlaay sax sa sa sa la waaye sa géer la. waa cawlaay cawlaay yaayam ju baax ja. mu mu Baye Ablaye Thiaw. oh Baye Ablaye Thiaw. xalifa bi Tuubaa lool. wallaay dëgg la. waaw ah, waaw soxna Laali. soxna Laali. ndeysaan naa ma njoon jur ko. wallaahi. ndeysaan. Adibo Dayi Laay. lay nitu yàlla yaa ngi fépp. walaay dëgg la daal rafetal gi daal lu rafet la daal. moo gën te loolu moo am. defe naa ne ku seetaan ren daal macha allah. macha allah yeneen i accessoires yi sax jarul nu koy déglu. wallaay nan xool rek ci lu rafet li nga xam ni moo fi. wallaay la lu rafet yi daal moo fi am. wallaay euh, euh, nañu rafetal rek moom defe naa ni euh, la mu wax leer na Pamatar maa ngi ñëw ci yow Jana moom moo ñu fekk si bi Birahim jógee déwénati mais tu es nga de. voilà topp Alima ginnaaw bi ma la nuyoo nuyoo euh, ñi ma bokkal plateau bi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne du ñu sonn duñu tay tout le temps ils sont scotchés ci li nga xamné moy programme de la Saint TV ma ngi djéggalu ci sama tour ak tour ñi liggéey Saint TV yépp mhm. di len balu ak di len bal di wax ni que c'est un plaisir un grand plaisir de partager ce ce plateau avec vous de le partager aussi avec notre maman maman Kinelam. Lam di ñaan yalla yalla def fi jamm wàccee fi euh plateau yu gëna neex gëna bari xéwal gi yokk di ñaanal président directeur général monsieur Bougane Gueye yàlla bàyyi ko fi mu tetteñu gi ndax bu rek ñun ñu la li Ahmed di wax bu ubbeekoo rek ñu ubbeeku mhm. ndax il a mis les moyens macha allah ba nga xamee ni personnel bi Euh, li ñu wax léegi nii rek ci weeru koor gi liggéey bu yaatu bi nga xamee ni def ngeen ko euh, yéen tam mu am solo lool mu baax coob li ni mu baree seen TV ne tey dafay baax mu fësal euh, mag ñi seen diggante ni mu rattaxee woon. la haine dafay nekk mélange dëgg de. xam nga tey

def li nga xamante ne mooy résistance fekk tubaab yi nga xamante ne dañu bëggoon naxasal euh, naxasal suñu économie fexe ba lépp li nga xamante ni Sénégal da ko fi dem am ñu noot ñu noot ñu ci xel noot ñu ci feneen ñoom ñu ñëw mhm. taxaw créer li nga xamante ni mooy résistance te defuñu jëluñu arme demuñu li nga xamante ne mooy guerre beneen bi aussi nga xool leneen lu leen boole euh, di l'islam mhm. ñi ay jullit euh, te xoolal aussi contexte boobu noonu jamono jooju bu ñuy wax islam ñi ngi xalaat ci dëkku naar yi parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon porter drapeau bi nga xamante ne mooy drapeau l'islam ñu bëri ay naar nañu woon ay derbu derbu derbu bu weex donc ñoom ñu ñëw nekk derbu bu ñuul nekk ay sénégalais euh, fekk fi benn domination française euh, wala domination occidentale ñëw ñu imposé wu di indi li nga xamante ni moom mooy tax ba tey jii ñu koy waxtaanee donc kooku wala ñooñu ñu leen di xaajale rek mooy ñu xamul mooy sama classe bi nga xamante ni jànguñu bëriwuñu xam-xam te lu leen tax a jug mooy fexe ba indi ay réeroog ak yenn mbir yi tey xoolal euh, Serigne Touba Xaadim Rasoul wala El Hadj Malick leneen lu leen boole aussi xam-xam la ñaata téere nañu bind baay fi. yow mii di toog di comparer lan nga fi jote a produire. dara lan nga fi a def dire yow nga si ñom li nga si non seulement si mais nga commencé di indi kenn comprendre donc sont euh, sénégalais euh, par man ñun mais aussi fofu du Sénégal dafa ci am responsabilité mhm parce que gis nga moy lima ma doon wax légui rek euh, nit bo xamul rek pour nga mën commencer di dénigrer wala ngay commencer di comparer wala ngay indi yenn relation conflictuelle c'est parce que aussi jangaluñ len ñan ñoy suñu résistant yi jàngaluñ leen ñan ñoy suñu borom xam-xam yi mhm. jangaluñ len ñan euh suñu mag yu bax yi mhm. tay boy jang Sénégal euh, ci histoire dañ lay defal ben paragraphe rek defal la ci résistant euh, pacifique defal la ci Cheikh Ahmadou Bamba defal la ci El Hadj Malick Sy alors que waroon nañu jël chapitre consacré que li nga xamante moy suñu histoire suñu érudit yi. Mhm. xoolal tay Université du Pire bokk na si ñoo xamante wala si euh si université yo xamante ni ñoo tabax islam ci waxuma Sénégal de ci Afrique. deug la. Université du Pire mi ngi nekk au 17e siècle. révolution Torodo nekk aussi presque au 18e siècle. Mhm. ñan ñoko ko ñun la Thierno Souleymane Baal. wallaahi donc loolu yëpp tey jii nekk fi mais malheureusement du ñu ko jàngal xam nga yan la ñuy jàngal ñu ñëwoon doon noot suñu maam. tooxal Serigne Touba doon jéem a tooxal doon jéem parce que tooxaluñ ko dañ ko doon jéem a tooxal te ñoom ñoo mujj toox absolument bañ ko jéemee mais ñooñ nañ ñuy jàngal tey ji dëgg la ñi nga xamanteni ne ñu doon note dem université du Pire jël suñu ay karim diko euh, taal di def n'importe quoi fekk ay nit ñi nga xamanteni ay nitu diine nañu doon nek di jàngale karim ñu jël nous ñom ñëpp di leen toroxal ñi ñu leen jël di sonal ñi ñu jël di def ngay dem Saint-Louis nga fekk fa ñu defal le Sénégal reconnaissant defal la ci euh, statut reconnaissant envers ces gens qui nga xamante mo doon jël suñu richesse di ko pilier ñoo doon jël suñu mag di len sonal ñun ñu wëlbatu di di leen di di di histoire boobu té duñu jàngale li nga xamante moy suñu mag yi. Euh, euh, loolu lañ fi def. donc gis nga aliment je crois que gis nga dañuy faral euh, tubaab fay faral nan tout arrivé en départ. Mhm. que li am rek c'est parce que dañu jàngalul xalé yi. té il est temps. ba ñu ñëwee dañuy dugg ci li nga xamante ne mooy bindaat suñu taarix bindaat suñu histoire nañu fexe ba xale yi ñu jàngal leen ñu xam parce que bu ñu xamee dootuñu nekk di diiñat dootuñu nekk aussi di comparer. parce que aussi ku jàng ba xam lu Serigne Touba wax moom lan lay woote mouridisme lan mooy mouridisme nekk ci yàlla topp lu yàlla santaane. dëgg la yi lan la ñuy def topp ci li nga xamante ne moom la yàlla santaane mii laa yéen yi di keneen ak keneen bañ na ba tuddee sa bopp laa euh, laa boo leen wooyee sax laay nañuy wax yàlla nañuy todd nañuy nañuy nañuy nañuy tuddee dindi xeebaate dindi boddi konte dindi lépp loolu tey buñ ko jàngalul xale yi lan nañ leen di jàngal Platon Hugo Faidherbe loolu lañ leen di jàngal mais malheureusement boo leen jàngalee loolu xale yooyu noonu lan nañuy am après dinañ mën a bind mais bind boobu xam la nañ siy bind fekk alima sa sëriñ di jàll ñu saaga ko ndey parce que yaa leen jàngal bind bi mais jàngaloo leen lan moo nekk ci bind bi donc xam-xam yaakaar naa du du ciel comme par enchantement. Mm-hmm. dañ koy yi nga dañ ko fi suñu fi waxuma la sax wax aspect religieux ah. bu la du ma Serigne Touba wala du ma mais nan une réussite. xoolal tey jii nan nañu fexee ba Serigne Touba mu ba Touba Touba deuxième ville économique au Sénégal. nga dem Tiwaawan waxi noppi nga dem tey jii xoolal Serigne Saliou Mbacke yal na yàlla euh, yokk leeram. amiin waay. xoolal tey lu mu def euh, euh, ci bay. ci mm-hmm. xelkom amul benn industrie wala benn entreprise wala benn nit koo xamante ne mun na def lu men noonu donc tey. je crois que même seen façon sax ñoom nu ñuy doxalee seen kër diine yi. Mhm. ñuy doxalee seen organisation loolu yëpp tey ji ay leçon la. état bi war mën a jàng te yaakaar naa balaa mu koy jàng na ko fexe jàngal xale yi. am na solo mi ngook euh, euh, c'est important ñu xam euh, suñu mag ñu baax ñu xoolal yooyu njëriñ nga wax wax nga léegi ci axlu laayeen nga xamee ni góor gi yamul ci randal géej gi kese da cee boole dindi xeebaate bon di kon te xam nañu à l'époque njaam ak sang dafa amoon fii kii jaam la kii du jaam yooyu yëpp mu dindi ko. koo ci woo laay lay wuyoo bu bu euh, seen xew-xew yi jotee axlu laayeen ñëpp weex la ñuy sol doo xam ku am euh, mbub mu riche meeg ku am mbub mu oyof mi ñëppay ndiroole ñu def suñuy perkaal yu weex mu ngi noonu ñu ngi nuyu bu baax këru diine yëpp euh, ñi ñuy seetaan jamono bii ajatu ki ne laam fi mu ubbee sànq ci waa kër Serigne Bamba ñu ngi ziar bu baax suñu sàng bi Serigne Mountakha Mbacké Bachirou yàlla na fi yàgg moom itam ci ànd ak wér génn na fa dugg Tiwaawan ñu ziar itam bu baax Serigne Babacar Sy Mansour bal xaw mi yàlla na fi yàgg moom itam te ànd ko wér di ziar bu baax ak lu laayeen eh, Baye Ablaye Thiaw mi fi ne ziar itam bu baax eh, waa kër Cheikh Omar Foutiyou Tall yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax Thiénaba eh, Ndiassane waa kër Baye Niass borom faydu bi damay faral di wat ni ñëpp am Baye mais boo nee Baye xel yi ci borom faydu bi dong lay dem

ñu dugg nak ci émission bu mag bi grand plateau jàkkaarloo Alima euh, sama sister ak Momo euh, di déwénati nak Sénégal yépp di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp euh, di ñaan euh, kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi ñaan ñu gëna dolli ñaan euh, di ñaan sunu borom bi feebar bi gaaw jóge fi ba ñëpp mën reprendre seen activité delluwaat ci normal bi merci beaucoup voilà merci beaucoup euh, Viviane bu am solo euh, xam nga moom nag euh, suñu xarit la macha allah damay wax ni mais Jana lan nga yaakaar yow miy def beauté ci rendez-vous Viviane daal moom saa bu xëyee day mel ne 18 ans voilà du je veux dire du sax Viviane kese mën nañ ko seetlu ci ci Kumba Gawlo Seck seetlu ko sax ba suñu mo ki ne laa Euh, juste pour diir que nit ki ak âge boo mënti am ak noo mhm. mënti mel waroo waroo bàyyi sa bopp war nga war nga di toppatoo sa yaram mu ci lekk bu baax mu ci ci xel bu dal mu ci ci sport bu mu ci mën a doon rek pour man nit war nga mën a toppatoo sa bopp teg ci nag li gën a am importance mooy dalal sa xel parce que bu sa bu sa xel dalee mën nañu wax ne noo bëgg a mel da koy da nga koy mel euh, ak am hygiène de vie voilà moo ci lima doon wax sànq di lekk-lekk bu baax bien vrai sax ñun suñu lekk demeewul noonu

yow itam am na yeneen daanaan yoo seeti woon dinañ ci ñëw ci kanam incha allah. incha allah. voilà mu ngoog dinañ ci ñëw ci kanam incha mm-hmm. allah. Euh, ajatu ki ne la Mam Bamba ma fàttali ñu ngi euh, tey jii li ñuy waxtaane moom moo di euh, diggante yu rafet yi nga xamee ne suñu mag ñu baax ñi amoon nañu ko sànq ñu ngi woon ak ay Aïcha ak Cheikh Sarr au cinquième étage ñu toogoon ak oustaz Alioune Sall ak oustaz Iran Ndaw wax diggante yu rafet yi nga xam ne mag ñi séqoon nañ ko ba dañ ko daje woon sax ci ay mbind dugg nga Touba yaay booy genn nga fa dugg ci waawan feneen foo ma dugal ma jël ci bopp Abdourahman ma ca tëggu jut nay ni ya. Cheikh Mor Kunta nga Njaasaan nga konar bi ci njaasaan kajoore jàmbat leeno bilaay nan roy ci ñoom nan roy ci ñoom mag ñu baax ñi fi nekkoon ba teg fi lislaam be bopp abdourahman bi mi ci càlle abdourahman ma ca tëggug junne yi ne ca mbaar ka Seex Sidi Abubakar moom la maamam ya daan siyaar ca walaata ma gaynde ya daan siyaar ca walaata kenn ku nekk lala la yàlla may Kunta nga Njaasaan Cheikh Umar Fuutiyu ee eh, bilaay Sénégal a kenn mënu ko ñaawal ma daane Cheikh Umar Fuutiyu maami umu taala ngoogo góoru yàlla la indi tariixa bi tariixa Cheikh na Ahmed Tidiane baayu Medina Taal maami Medina Taaloo maami Umu Taaloo asudaatel bokkar Musa kooku la yaakaaroo Umu Taal mu ngay do wallaay man daal maa barki démb bu seetaat ni télévision yi nga xam ni Sénégal la bari may bu kunte mi ci njaasaat non si di mi ci pom soo demee ñaseen nga jag ba maami Mustafa Ajaali maami Baba Labin ki jël dëkkam tudde ko Medina Bayo tudde ko Medinatu Rasuulo xam nga nii ñi rekk baax Madine soo ñëwee laa yéen ewa ewa Seydina Limaamu Laay mu ni woon géej ratlul ari boo daay laay i ci Yoof Limaamu Maam Kumba Ndooyo wallaay maami Serigne Ousseynou laay mi mi jooy wallaay sëñ Ablaye Thiaw dundal waayo mi ñu dénkoon soxna laale mu ni diiney malaay nu fonk diiney malaay donto nit ku weex la ma fonk diiney malaay wallaay man ku ma kontar ci way limaamu duma la faale maam limaamu laaye ma yóbbu woon kawaras ni ma naana ba man di yaa war a waame diine it malaay kilifa yaa ngi noonu wallaay Xaadar jilani mi nu Cheikh Abdou Xaadar ilimani ilimani señ ba tuddee na nako do mo xana lu gat-gat nop de ngaw modul fadal faadal mang yêu ci ceeb ndox maa ngi wal di ñoom di ñëw ci ñoom seex sat bu woonu seex de calaw gaynde nguraano seex de calaw daalo moo tubloo ceddo yi ndax sat boo nga jaggat naar nan ko gént naa sëriñ ci jéem ndax maa ngi war bi ñëw ci moom dama bëggoon nga indil ma sëriñ yi ci gatnaar mu ne ko ci sa barke yow seex saat bu mën naa ko keroog la suli neew ya ndar géej dekkal bayloo njaay cëngu mba ngeewul wax loo Omar Fall ca loppul ñu ni ko ma bu mi ndeena njaay mbaj njaafaj ñu ni mbaj njaari bor njaay wallu la xanaa kii wallu yaa ci Sénégal mënu leen a ñaawal kenn mënu leen a ñaawal Seex Bamba Tuuba Alaaji Malik Tiwaawoon bu kunta ca Njaasaan Limaam Lay ca Yoof Seex Sat bu Gànnaar ana waaj ña seen ewaay eh. eh rafetal leeno loolu la Cheikh Mountakha wax e, ñi nganki diine ji sëñ Bamba bëgg sëriñ Bambaay waaje ba tudde daal Cheikh Abdou Khader jili borom Baxdaad te dëkkam kat xam nga nu mu ko tuddee Baxdaad la ko tuddee. dëgg la eh. dara ñaaw fi xanaa ku bëgg ñaawal waaye senegal gi nu ne kenn mënu ko ñaaw. aysata mariama ibra sabu takwa bi galo malanje sambe di ma jom foto asdati ramata rakki dembal min di dukan dembal olman atu mustafa ne bi tribi di fra dembal be di del laj ma ku mu wolu kan la cheikh oumar foutiou e eh, way cerno madani talo oh, cerno madani talo aka yag jeji ana umu talo wow ndeysaan senegal a ngoon senegal gi defenani. ni di ci wat sax wax ju yakula wax ju yakula wow sunu borom bi defar na ba pare mhm. so ci waxe sax day indi polemique deug la te polemique baxul deug la ndax xam nga ni bu bax ni sunu kilifa diine hmm ñi nga rafetal ba rafet

sant Cheikh Ahmed Bamba sama sëriñ waaye nañu xam ne nag Sénégal moom ñu ñaan yàlla mbas mi jóge fi defe naa ne ñun waa Sénégal defe naa ne ñun am nañ mën a wax de. Euh, bëgg naa ñëw ci kanam ma ñëw ak ci euh, ci mbas mi. Ah. Euh, ci kanam tuuti incha allah ndax mbas mi moom itam bëri na lu mu yàq ci réew waaye bëri na lu mu yàq a géwél yi tamit. Ah, waaw. <laughs> ñoo ngi yaru te naa ci ñëw ci kanam incha allah alors euh, ñu ngi nuyu bu baax euh, Mati Dieng euh, mu ngi ñuy seetaan moom itam depuis Amérique ñu ngi koy nuyu ak internautes yi nga xamante ni yëpp ñu ngi ci ñu ngi ñuy topp ci groupe groupe des médias ci YouTube ñu ngi ñuy topp tam ci seen TV officiel ci Facebook ñu ngi leen di gërëm bu baax yaay booy Viviane sa doom ji sànq moom la ñu moo doon jàllale message am. message yu moom sa doom la sa xarit la. waaw sama doom la sama xarit la. Mhm. man artiste yëpp samay xarit lañu. dëgg la. ñi ma fekkel nga xamni ñoo ma sa jamono di and mhm. ñoom ñëpp jox nañ ma cër ma and ak ñoom ma leen di déwén na ci ñoom ñëpp nak sans exception ñu Youssou Ndour Baba Mal, ismaïl Lo Omar Pention fek Seck mal Maal euh, tubaarfa Omar Pen, xalé yi nga xamni ni ñoom ñi ngi seen. keneen la la bëgg wan léegi waaw. keneen laa la bëgg wan léegi. comme wan naa la Viviane Sànq. waaw Alioune Mbaye Nder laa la bëgg a wan léegi. Oh, euh, mu Tiwaawan euh, oh, voilà ñu xool Alioune Mbaye ah. Nder euh, l'enfant de Tiwaawan. may kontaan trop vraiment di gërëmaat yàlla suñu borom moom mi nga xamante ni bii moom moo ñu mayaat occasion ci waxtu wi ñu mën a wax ak àdduna jaarale ko ci télévision bu mag bi ñuy wax Sen TV macha allah yal na yàlla yokk. te dol len jam dolli sen borom keur ñu di wax bu gan di suma xarit di suma rak muy andu bu yag te dara musu ci ñaaw euh, ma ngi profito ci occasion bi nak ci euh, korité gu sel gi di balu ak aduna bi yeb di wax nañ bal ak ndax sama and ak ñoom dara ñaaw ci te xam naa ñoom ñoko teye parce que and mom amna way kat bu tuddu Aline mbay Nder bu ni so amé xarit dang koy ci jikko kon xamna ni seen jikko rek ngeen ma jappé ba tax xamna ni même bu ngeen ma méré sax du yàgg ndax nit du méré bopam lu yàgg donc may lu déplacement bi ngeen def ñëw fi ci man li wax ni ko kontaan naa trop yalla mi am pay yalla leen pay euh may wax ni déwénati projet yi ngeen am ñëpp xam nañ ko am koy rafet lu euh surtout man aliou mbay ndeer ma ngi sama jëm ju xébu ji dal ma ngi ci ñaan yalla suñu borom surtout mbass mi nga xam duguna ci aduna bi yépp yëpp ni fi ci Sénégal bi suñu dëkk. mais ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ni que moom moo bind virus boobu muy jaam ni doomu aadama te lu mu ko wax loolu lay def comme moom mooy borom kum fa yekkoon yàlla na ko arrêté yàlla na ko arrêté yàlla na ko arrêté sëriñ sama sëriñ bu baax ba sëriñ Cheikh Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram daan noo ñaan di ñaan di ñaan bay wax ni yàlla bu leen dara ngeene ju waaw loolu moo xoon nag wax bu rëy la tey leen gën a soxla ñaan yooyu ci mag ñu baax ñi rawatina kilifa diine yi kilifa aada yi maa ngi ziar bu baax waa Tiwaawan euh, di ziar sama sëriñ yi euh, di ñaan ñi nga xamante ne bi yàlla dogal na ñu jiituñu yàlla yokk seen leer ñi nga xamante ne bi aussi ñu ngi fi yàlla bàyyi bàyyi noog ñoom ba ci kanam euh, ñu di ñu ñaanal di ñu tette parce que ñoom ñoo nu mën a jiital ci yoon lislaam ñoom ñoo nu war a jiite ci yoonu siraatal mustaqiim mais ngoog bëgg nañu leen a dugal fépp wan leen euh, euh, suñu célébrité yi naanaan yi ñoom itam naka la ñu euh, korité moomoo Alioune Mbaye Nder la korité moom itam joxe na message muy message bu am solo message bu am solo ku ci na ci ñoom joxe na joxe na message bu bu am solo xam nga ndeer moom ndeer moom mooy ndeer dëgg la xam nga ndeer moom mooy ndeer ci ci mënum woyam mm-hmm. ndeer mooy mooy ndeer ci ci ci ci xelam bu sell xelam bu set ci mën way ci mën way falaa njëkkee xanaa xamoo ndeer xale yi di wayantu nii yëpp ak di di way yëpp bu ñu fayee koo cachet war nañ ko yóbbul. ndax fond musical yi. ndax fond musical yëpp ndeer la. <laughs> lépp ndeer la fecc mi sax ndeer la. donc mi ngi noonu moom ñi ngi koy ñi ngi koy siyaar bu baax a baax demuñu woon rek ci moom de demoon nañu seeti itamit goro goro ndare baaba bi. daba sëy ko waaw. yaayu sëriñ Fallou yaayu sëriñ Fallou. daba sëy la daba sëy la. ayca daba sëy moom ah, lu mu la wax ci korité bi. ak ban message la joxe. ay ca ñu dem seetaan ko te ñëwaat. nuyu fans yëpp di wax rek ni ñu ngi ñaan suñu borom musal ñu bu baax ci mbas mi nga xamante ni mooy coronavirus parce que empêché na lu bëri waaye ñu sante ko yàlla di jéggalu suñu borom ci di ko wax rek ni ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan mu jëlee ñu fi mbas mi coronavirus bi abal ñu ci jàmm ci loolu laay profité nag di déwénati sama nit ñu baax ni ku ci mel ni ndeytaal Torodo ku ci mel ni Siga ku ci melni soxna parim, Mbacke depuis Paris ma ngi koy bu baax seyna bu ñing ah di déwénati Adja Diallo bu Diop di déwénati Senegal yep ku lim da ngay joom ma ngi ma tuddu ak ñi ma tuddul ñep sama xel nga ci ñom di balu ak di wax ni bal na len ak ngeen bal ma ak yal yalla defal ñu déwén ñu bari bari bari bari bari li olaf di wax rek bu déwén na len ñaaw yalla melni ren yalla nga ko yalla defal di déwénati nak sama yaay soxna Ndeye Fall Mbuub maa ngi koy déwénati di déwénati soxna Ndare Baaba sama yaay ah ak Mor Maane Diop sama boroom kër Muntaga Samb Afsa Chéri may sa Ndiaye ak famille bi yëpp yal na yàlla def jàmm defal ñu sutura ak xéewal Sen TV comme suñu kër la faaw ma wax waaye lu munta ñàkk la rek maa ngi jégalu wax naan déwénati waaw Sénégal yéen di wénati leen yéen waa Sénégal maa ngi ñaan na yàlla def gudd fan wéral cëri ca mbas mi suñu borom jëlee ko fi nu mu gën a gaawe di wénati waaw yéen waa Sénégal àdduna li ci biiram jamonoog ni mu aa ñu ngi ñaan buur yàlla jëre fi mbas mi ñu ngi jéggaloo ci dellu di ñaan Muhammad Wade buur yàlla jële fi mbas mi nu mu gën a gaawe ay ci donc euh, dabaa ngi noonu xam nga dafa am benn wax mu wax mu xaw a jur polémique mu ni mu déwén naree ñaaw yàlla na mel ni yàlla na mel ni ren. ren li baax bëriwul de. meer ndare meer ndare ni ko ah waxi mag la de waxi démb xam nga ndare dafa neex waxi démb la de ma ni ko nag euh, wax ju ñu mën a dégg la parce que kenn xamul ñaaw déwén nu muy mel. ba xam mën naa gën a pire ren. ba xam mën naa gën a pire ren. dëgg la gën a piir yàlla na mel ni ren. mën naa ne de bu naree gën a piir yàlla na mel ni ren ah. <laughs> waaye ren daal xam naa li baax bariwul. <laughs> baax bariwul waaye kenn xamul ñaar déwén bi. Eh. corona bi la jël nañu te te ci 2020 bi la ñu. bilaay bilaay xam xam nga xam nga bi ñuy wax loolu ci at bii ñu bi ñu xamuñu woon lu ñuy fekk ci at bii di di ñëw atu 2020 bii ñu nekk muy mbas mi. at bee di ñëwi tamit kenn xamul luy gën a ñaaw. ñaanuñu ko yàlla ñu ko yàlla. yàlla nañ ci yàlla musal ah yemuñu woon rek ci daba sey yi tamit waaw doxantu nga ci ñu bëri xool leen ñoom itam naka la ñu koritee gannaaw daba sëy hmm. ak ndeer kan nga seetiwaat euh, gannaaw daba sëy ak ndeer seeti naa tarba tarba mbaay waaw tarba bu Moustapha Mbaye xale bu bi doomu garandakaar bi xale bi def doomu Grand Théâtre yàggul dara wallaay ah moom itamit baalu na ak ay soppeem hmm. mun nañu ko déglu te ñëwaat ñu xool ko ay asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum la Sen TV surtout asalaamaaleykum waa Grand Plateau maa ngi leen di nuyu mantar ba mbay di baalu ñëpp ak à travers Sen TV di baal ñëpp ak di ñaan sunu borom boole ñu jégal ñu fekkee ko at yu bari bari ah at bi nag yàlla na yàlla na dàkk at yu ñu mës a weesu yàlla mun na ko euh, dugg nañ ci ci ay difficulté waaye yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. Euh, ku ne xam na ni ren dañoo julli ci benn moment bu xaw a difficile muy ci moment bi nga xam ne mooy moment Covid 19 ñu naan ko coronavirus euh, muy loo xamante ne sunu borom moo ñu ko teg euh, di ñaan yàlla mu teggal ñu ko teggil ko àdduna bi yëpp ndax. àdduna boo amee jàmm rek mooy Sénégal am na jàmm ndax fépp foo dem partout moom monde ay doomu sénégalais ngi fa kon dañuy ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bi euh, tegg mbas mi damay faral di léegi ñu ne mbas boo gis rek ay xéewal moo ci topp euh, lii yàlla ko yàlla gaaw jeexal te ay xéewal yu saawaan baawaan topp ci ba lépp lu ci waay yàqule woon rek eh, nga am ci lu ko ëpp yàlla am na ko mun na ko ñu ngi ko koy ñaan di baaluwaat eh, waa Sénégal surtout waa diaspora bi ñëpp ak encore une fois di baalu ak sama fans yëpp fépp ñu nekk ci Sénégal ah di ko njëkkee ci 100 pour cent Tarba Mbaye Grand Dakar 100 pour cent ba Sénégal fépp fu 100 pour cent nekk rek maa ngi lay bëggee di la baalu ak di la wax ni dina yàgg te dina neex luy naaw a neex a sànni. ay caalima gone gone Grand Dakar gaa ngi noonu doomu alaaji Moustapha Mbaye bi moom euh, manière gii façon gii la souhaité euh, bonne fête ay mhm. soppeem waaye itamit wax ci mbas mi nga xamee ni defe naa ni jamono ji ñëpp la laal bu ñu nee ñëpp mooy artistes yi bu ñu nee ñëpp mooy géwél yi ah yaay booy xam naa jamono ji moom dama too fenn alima faw mu ñëw ci loolu ci kanam ah waaye <laughs> waaye waaye laal na itamit feccikat yi waaw parce que demoon naa seeti itamit ëma di bajaan dëgg la de xool moom itamit nan la nan la dundee korité wam nan la korité boo noppee ñu xool te ñëwaat. ñu xool am di kon. am di jàmm yeeg sopp. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Grand Plateau. ah ñu ngi leen di nuyu ku ci ne yéen ñu nekk ci plateau bi yéen ñu plateau bu yàññi boobu ñu ngi maa ngi leen nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant. waaw ñu la jaajëfal di nag baalu àq. àdduna di baalu àq sénégalais yi di baalu àq am di jàmm yeeg soppe yi surtout soppe yi ah, baal leen maaq yàlla nañu yàlla boole jégal ñu fekk ko ay déwén yu bari yàlla yokk xewali defar lépp ba lépp sawoon baawoon ci kàttanu Seydina Mohamed di leen ñaanal nag at mi ñu génn at mi ñuy dugg yàlla na ko dàq ñaar fukki junni yoon te nag corona demal yàlla nañu yàlla musal ci yow corona aja corona va corona va-t'en s'il <laughs> nii la ko waxee moom. dàq na ko nee na ko va wallaay s'il te plaît. s'il te corona nag damaa foog ne xamul njëkk moom. xamul njëkk déedéet. ñaanee nañ ko nu ne. xamul njëkk gisoo bi ne woon na. comme que ay jubbu nga fi andi woon xanaa korite gi di nga teg greffage. dëgg dëgg. ah doy na waar te ba léegi demul. ah doy na na waar tout cas mi ngi noonu ñii la ñu seeti woon tey ci ci ci bis bu sell bii di bisu korité xool ñoom ci ci moment yi ñu nekk nii moment wu confinement partiel bi nan la ñu feet nan la ñu passé woo seen i fête donc fekk nañ leen seen i ay kër ñu def comme ni ñu ko digéwee muy rester chez vous Mhm. donc mi ngi noonu toog nañu seen ay kër di euh, waxtaan ak seen ay fans ci réseaux sociaux yi waxtaan ak ñoom itamit ci euh, vitrine bi nga xamee ni ñun jox nañu leen ko pour ñu mën a baalonte ak waaye itamit wax ci mbas mii di coronavirus. mu ngoog wax ci euh, coronavirus waaye itam joxe seen message yu déwénati ci Sen TV la télévision leader mi ngoog je rappelle nga xam ne yéen a ngi ñuy soog a tey ji plateau spécial la bu nu jagleel juste suñu mag ñu baax ñi diggante yu rafet yi nga xamee ne amoon nañu ko. sànq eh, gis ngeen ne Naïcha eh, mu ngi woon moom itam au cinquième étage toogoon ak oustaz Iran Ndaw ak oustaz eh, Alioune Sall ñu doon waxtaan diggante yu rafet yi nga xam ne ak jëflante rafet yi nga xam ni moom la mag ñi doon def ajotu ki ne la Mam Bamba wax naa ko sànq ñëpp xam nañu ni taalibe Serigne Bamba la ki ne la am Xaadim Rasul waaye kër gu ne dugg na fa jox leen seen wàccuwaay Pape Matar korite gi ni mel jamono bii nga xamante ni euh, ñëpp dañ daan jug euh, duggante génnante baalante ak euh, jamono bi boo amoon message booy joxe xale yi mën ci jàngat ban message lay doon. waaw xam nga damay faral di dégg ñu ni xale yi dañoo dañoo réew. Mhm. en réalité réewuñu dañoo xamati. il foog ñu xamal leen. maanaam dañoo xamul. dañoo xamul il foog ñu xamal leen tey jii boo xoolee dañuy naan boo demee ba xamoo foo jom da ngay dellusiwaat. te buñuy del soir rek nañ del si mag yi parce que mag yi yaakaar naa bu nekké xam-xam rek soxla wuñuy dem di rooti ji euh Serigne Touba bind na jëf na euh Alaaji Malik ak ñeneen ak ñeneen. Mm. donc tay ji yaakaar naa ne soxla soxlawu ñu dem di jële ji kenen comme référence mais nañu jang ci li nga xamanteni moy enseignement suñu érudit de l'islam yi. bindu mag yi. Euh, mi ngi fi tege mais malheureusement aussi état na pas nako bolé programme parce que tey ñu ñuy jàngal ñeneen c'est vrai que baxna kenn du wax ni baxul mais nañ ñu ci bolé parce que xalé yi aussi euh, bo comportement yi ñuy am ci réseaux sociaux yi ngay ni euh, ma ngi ñi ngi duggal sa photo di ci mokew di ak ñeneen ak ñeneen cest dire ak ingéniosité bi je me dis que sen xam-xam c'est sen temps bi buñ ko non mais mais mais c'est malheureux euh, aliment Momo kiñ ko monteel nee nañ ñoom ñaar ñoo ndiroo sourire. mais mais c'est malheureux parce que xoolal boo. Simba ma woon Simba. temps bu ñuy jël. Euh, di ko def ci yenn plaisanterie je dis pas que c'est pas important mais amna yu ko ëpp solo. Mhm. Euh, di ko def ci yenn mbir buñ ko jëloon peut-être def ko ci lenen lo xamante même bu nekké sax ben phrase Serigne Touba Khadim Rasoul dina jangal kenn. donc nañuy jël suñu temps bi diko gëna consacrer lu utile euh, ñun ndaw yi ñun ñooy avenir au Sénégal. donc ban ndaw nañ soxla boo xoolee jeunesse bi nga xamante ne moo nekk ci réseaux sociaux yi ñaaw nañu lamine mën nañu tooñ te loolu lu jëmale kenn kalam. dee tax ba après ñëpp nañ siy boole xas ñu te malheureusement dañuy fàtte ni euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le marché de l' emploi que seen patron yi wala seen futur employeur sax ngi ci réseaux sociaux yi di gis ñuy saaga donc nañu def preuve de retenue te bu ñu xamul ni di ko jugé. nañu nañu moytu lu bëri message bi daal leen la di ñaan yàlla euh, que li nga xamante parce que yàlla boo koy ñaan da nga koy ñaan lu leer Mm-hmm. comme situation bi ñu dund ren compliqué na yàlla bu mu fi amati. jarul ñuy naan bu naree ñaaw yàlla boo koy ñaan da nga wóolu ñaan ko lu gën. yàlla man gëm naa ne bu ñu ko ñaanee lu gën ni ko lii nga xamante ne am na fi def di nattu yàlla bu mu fi amati. dëgg la de. Euh, ñi nga xamante ne seen bakkan root na si yan leen yàlla xaaree àjjana. Euh, te yàlla feebar bi yam yàlla yàlla aussi yokku jàmm parce que loo amul euh, loo am. Euh, te du jàmm di nga jaay di nga ko jaay te wuti jàmm. Euh, lépp loo am jàmm ko gën. Mhm. yal na ñu yàlla may jàmm jàmmal ñu. mais aussi nañu tàppe xol yi nu ko maam Abdou Aziz si doon waxee nañu fexe ba suñu xol yi ñu yaatal ko euh, respectante nawlante mais malheureusement yooyu yu bëri ñu ngi commencé di dañ. te loolu yaakaar naa ne bu ñu delluwaatee ci li nga xamante ne mooy li nga wax léegi relation yi am si suñu diggante mag yu baax ku nekk taxaw di baaxoo di naan sama sëriñ sama sëriñ sama sëriñ mais se sëriñ def na bàyyi fi yow lan nga jot a def lan nga jot a suivre comme exemple donc di jaajëfal ñëpp di leen euh, remercier di leen féliciter. non yow mun a goo dem il faut nga toog ba ci kanam. déet wuy ma. il faut il faut nga toog ba ci kanam il faut nga toog gunge ba ci kanam mais euh, ajatu ki ne la bam bam xam nga jamono bi Sénégal ñëpp ñu ngi ñuy seetaan wax naa ko sànq mais surtout ci euh, réseaux sociaux yi xale yëpp gis ci xale bu ne sax waykatu léegi. nañ dem jàng yooyu nañ dem jàngaat ci ajatu kine la bamba macha allah gis naa xale bu ko wax léegi ajatu kine eh, foo ñu dugal baax na yow daal eh, Sénégal yëpp a ngi lay seetaan eh, ñun ñi ci plateau bi bég nañu xam naa ñi nekk seen i kër tam Sénégal comme bitim réew noonu la ñu bégee yow daal loo ñu may ñu yóbbu ngéwél bërki démb yee ndeysaan waaw waaw doomi mbar jàngil bare ni des na la ñam ni bor boo jàppe man daal fa la ma ne laam sama sëriñ jax réew be ca miñet mare ma kunte yaay soxna mbeen càggale jumaa ji talampi mira armeeli yóbbu juróom ñetti téeméeri de taara jàpp ko koy bàyyi sëriñ Abdoulaat ambassadeur bu ñuul bi ee eh, kor seen bu li Mbàkke adima mu doon ambassadeur bi alaji fallu sa baay aj na ca Makka ya tey doomi sëñ Bamba sama sang bi laa xaway soxna Anta Gueye sa yaay Modou Fadal Baye Cheikh Modou Moustapha Fallou sama sëriñ xër bu ñuul bi bindu be Cheikh Abdoulaye Lahat yokk bi jumaa ji bàyyi laat autoroute bi bàyyi laat këru mag mom bàyyi laat marché okas bi bàyyi laat kina abdoulaye Modou Fadal ko koy sama waji Alaaji Bay Ja dundal doomi ajaratu Xadi Géey jee kor ki ne mbay ja Cheikh Modou Fadal ee eh, sëriñ Soyibu moom la doomi Cheikh Ahmed Bamba yëpp daan gareesi bàyyi soxna baa Abdoulaye hat, mare ma jaxate ma ca ay gu neex gaak serigne sali bina me juroy ma yu tek ñaar la rasul walu serigne am satu Jaxate jox ko ko mook ñaari rakka muy Seydina sëriñ Saaliw ak sayidina serigne Soyibu jangal na len mok ma serigne Alsan Jaxate mak mom gi tuba ak lan Buusa Jeeñ sama sang bi laay ma ko nuy Seex Bamba jërëjëf ni ko Mamadu Fadal jërëjëf bilaay Seex Moodu Buusa baax dafa da ko jigéen ju naan soxna Buusa Jeeñ am ci sëriñ Moodu Buusa Jeeñ ma yaasin mu jangay baayam Sama Fallo ak ma Samba Tayba ma yaas njaas jaxati sen baay bu tufanta mbay borom njaab ko dam dalla yib dal dalla abdalla buri fall bu mali coro ji yeen sama sang bi ewaay Camar Moustapha Fall lilo baay sëriñ Baara mi ma woran bi ci laa sang bi Cheikh Modou Moustapha Fallilooy bàyyi Serigne Makhtar mbokk baayam sëñ Mourtala Juma ak sëñ Abdou Fata Cheikh Abdoulaye ambassadeur Cheikh Abdoulaye ambassadeur Cheikh Abdoulaye ambassadeur man ki tax ma mel nii oh. ni ba xam lii oh. ba réew mi sow ko ko digan Cheikh Madou Bab ma ni bilaay ki tax ma mel nii ba xam lii ba réew mi sow ko ko digan Cheikh Madou Bab ma la punga nel yaa ko taal babil muridiina lampu nga del moo ko taal biel bi ne tak kenn ñeme wu Ibra Faal ni yaa ca xus jàll kenn ku ngeewu la ngi naan ñëpp ngi naan Mbàkke balaa isa mbég maa nga Tuuba lampu nga del moo ko taal kooku koy maami na baali mi nekk sëñ Muntaxa sëñ sooy bu baayam moom la doomi Bamba yëpp daan gane si soxna Maguette yaayam sëñ Kambale Yaasin Yaasin Faal bu ñu di beer mboor gankil biram gu demeel maa sama sang yaa ngi noonu li mbakaadi Mamadu aade ki tax ma mel nii ba way lii ba réew mi soow kooko di kat Cheikh Madou Bamba dal ni maliku kumba jor dege na fara lamb fara lamb damel te dogo sama waaja mali kumba jor dege fara lamb fara lamb damel dogo eternal César. sargal sama jeker ju bax ja ca bay nelaw bayu ndey cham bayu ndey cham sama dom ju bax ji aka bañ ma weto bayu papaloo cham ko fali dem nga malay jo ko dog nelaw la kumba njaay birima kumba sama waja aka bari valeur jaasi nay not dogoy bàyyam ma mbaxari sa faal bàyyi ndogoy sama doom ja ca Itaali dogo dem nga nu lay jooy xam nga ne doo am remplaçant man de xaw ma ku moom ci man abadat daal sama waaja dogo nang ma xaar nang ma xaar sama waaja lay jooy dogo faali maa ay jëkkër ju mel noonu fu ma koy jëleeti gor noonu fu ma koy ameeti ku goreet noonu fu ma koy xameeti fat ci miim réew kon ni mali kumba jóor dégéen fralamb fralambi damel teeñ dogo waaw walaay. loolu moo loolu loolu loolu mënul ñàkk. déedéet déedéet. ndax nit bu la yàlla boolee ak ku baax. ndeysaan. tey jii tubaarkalla macha allah suñuy wari wala ñuy def dara ju xam fu ñu ne. Mm-hmm. suñu njaboot du ne dañuy jooyoo duñu xam ci lu nu ne. bàyyu gànn ci am ma ca Thiès. Mm-hmm. gor su mel noonu. Cheikh Ahmed Bamba di kenn ngeen waxtaane tey mag ñu baax ñi mhm. yéen a waxoon tey bu fi kenn wooy géer mhm. moo tax tey dugguma ci benn géer déedéet première première partie bi waaw comme duggu nañ ci suñu mag ñu baax ñi ci première partie bi wax euh, diggante yu baax yi ñu amoon deuxième partie bi dama lay bàyyi ñu wàcc ci géer ñi mag yow ak ak ñoom moom moo waat ak janaaw ak ñooñu ndax ñii man xam nga man damay damay dégg ndigal rek ak ñoom Fatima janaa nee na am na laaj bu mu la bëgg laaj sax léegi nii ndeysaan waaw déglu janaa euh, waa ne macha allah wéy nga wéy nga lépp boo ñëwee ci li nga xam ne mooy fait de société ñu ne foofu nga mënee waaye taggaate bi man dama bëggoon xam ndax loo donn la wala loo jàng la ndax dafa doy wax daal foo foo. laaj nga waaw <laughs> nga laajte. waaw laaj nga laaj nga loo xam ni lu neex a wax la. wallaay. waaw donn naa ko lool nag. ba ko daram pare sama maam sa wàcc gawaram. nee na benn buur ma sama maam ca yooyu jamono chef d'état rek la daal ñaan sama am saafar ma sama am saafar ma la nu boole ni mu sàngoor a jor mbay kilo tey béri ngaraaf bi gër ñi daw ci kawam la nu jaar amari ngoon sabel bi muy wut réew mi pour moom ko pour moom kajoor ak bawal mhm. demaroon sama maam la àndal rëy la lu fi fàkk ca tool ba ca dànki en 1549 dëggal moo tax faal lu ci takk di faal mooy nuyu Cheikh Mbacke ndjay mu fibis ñaan deug la assureur bi di nuyu adjartu penera ñaan mu bax mi yaay jor yaay jor barki dem rek la fa joge du nuyu babakar Ngom Sedima ba yu Anta Ngom dafa nani tabarakallah tubaarkàlla macha allah ñooñu ñooy faal ba kabale bokk ndeyam ndambaawam gisali ku ma mu faale seen yaay tudd cala way bàyyam cala nupp nupp jaariñ ma ko du ko ma jaariñ la ma saas moo coro ganaa yé nga ma yëngal de waaw am solo uh-huh. noonu ma ko doon na ci samay maam sama maam yépp nag man ci ci askanu géwél wu rëy laa dugg uh-huh. Malicouma Yann Ndiaye sama maam laaj benn géwél àndandoo sama yaay maroneen la cent pour cent uh-huh. waaye dama koo jàng nag jàngul tari moom mënoo koo mënta am ku bën a bëgg yàgg ci ci plateau bi wala nga def ko da ngay dem nga jàng. dëgg la nga déglu bu baax nga def ko muy sa xarit bi may commencé woy booba aw ma 15 ans ma fonk ko defe naa 1975 laa ma laa jëkk yi ci stade bi stade bi wàcc. dëgg la de. te booba 17 ans laa am. 1975. 15 stade ba maar bépp wàcc. dégg naa keroog bi ñu lay auditionné Sorano bi nga wayee ñëpp ñëpp daanu. waaw ba ma li ba ma li ba ma auditionné Sorano boobu ma daan auditionné Sorano ñoom Annette Mbaye Derneville. Annette Mbaye Derneville. les grands griots ñoom Amady Ndiaye Samb. Mhm. Samba Jabare tous les grands griots yal na leen yàlla yërëm. amiin waay ñoom ñëpp dañ naan toog ci kaw plateau bi. ñu ne ki da la Mam Bamba mooy bëgg a way te man boobu aw ma vingt ans. loo way keroog. Mam Bamba Xaadimu Rasuul laa way. loo ko waxoon. <laughs> tooñ nañ la de mam bamba sigil nga lislaam ni mam bamba mam kile di jambar ku jaar fa bamba jaar do delo ti tuba ndar ci géej yor yor ndar timi suwir wir tundu jewal puru saab moo di mbënnug ma yóbbe xadim Imam baba imam baba bamba kile di jambar ku jar fa bamba jar do delo ti tuubaa dem na Gabon dem Libreville Wow, dem na Gabon mayo me. ku jaar fa Bamba jaar yow doo delloo ci Touba Wow mamba bamba mamba kile di jambar du mooma xorom dama koy way sigil na lislaam waaw ndeysaan li nga way Sorano biñ lay auditionné oh, biñ e Sorano fa mhm. la fekk 36 personnes lañ la fay fa la fekk fa nuyu onda Maurice Sonar Senghor ne dem leen ngeen seeti Kiné dëgg la ñu wëri ma ba gis ma indi ma tubaarkàlla macha allah ma auditionné ñu ne Kiné Lam elle rentre avec décision macha allah fi mu ne sax damaa bëgg ne dem wëri sama retraite ba ba xam ndax xam naa ni ba waag léegi toppatoo ma ko waaye jot na moom laa bëgg dem nu fay ma ko ndax ku liggéey dëgg naa ci baat ba am fa 10 ans dina la fay retraite loolu lañ wax dañ laa war a fay dañ lay fay yàgg naa fa nag yàgg naa fa ne kon tubaarkàlla macha allah ma nekk théâtre national dañuy salon fekk fan daanaan yu mag yëpp. Mhm. keroog bi ma auditionné xaar mbay ma jaaga dafa wax ni xale yi am ngeen gan. na xëy talaam mi càll bi ci gaaw. waaw dama jël woy wi rek xandaaloog moom. jël mhm. solo bi aj ko ca kaw xandaaloog moom yéeg si waat ci suuf. mu ne xale yi am ngeen gan. wallaay. fekk fa maju ji ñu sama mag ju baax ja. wallaay. fekk fa ñoom yaa far saaxo maaw kuyaate. ndeysaan. Fanta saaxo. Mhm. mu Soda Fall. tubaarkalla macha allah. fekk fa ñoom Fama Issa Diop. Fama ak ñoom Fatiam Samb. fekk fa ñoom Sombel. Dout Sarr. Yafat Sakho. Ablaye Idi Seck. Njaga Mbay. Njaay Sambu Mbu ma Diop Seck. lay mag yooyu yëpp fa laa leen fekk. ma nekk xale bu ndaw ñëw ci seen biir. ah sant yàlla bu baax. kon boo transversé loolu ba ñëw nag en 1989 nag ma formé sama propre groupe muy la kàggu nag ma demal. sama groupe kàggu waaw boobu nag euh, sama jëkkër ju baax ji moo ma wax ni ma demal nag sa bopp ma génn Sorano. Amina El Fatia en 1989. kon euh, euh, jaar-jaar bi moom. Mm-hmm. sant naa ci yàlla. ma dajeeg ndaanaan yépp nag fekk leen nag. sama naw sama nawle yi ñoom Youssou Ndour Baba Maal Ismaïla Lo Omar Pène Thione Seck ñu daje ci ci ci ci ci ci kii bi ñu daje man ak ñoom nag. dëgg la fu nu taxaw ma taxaw fa nekk seen jigéen. wallaay ndeysaan ak Kumba Kumba Gawlo. Kumba Gawlo xale la. dëgg la mais mu rejoindre nu nag. Mm-hmm. ñu dem association benn loxo Kumba moo ñëwoon. dëgg la ndeysaan kon woy daal. dama lay wax ni la loo ko jox dina la ko delloo. Mm-hmm. su ma gisee ko respecté fonk ko daal dama koy fonk. Mm-hmm. parce que man l'arma tout donné. d'accord waaw jox na ma lépp sant naa ci bu baax. alors. dinañu dinañu dem léegi xool yi euh, Mbaye Dieye Faye euh, moom itam message yu déwénatam joxe na ko mais laata ñuy dem euh, Fatmata am na juste benn laaj ñu soo ko dem xool yi Mbaye Dieye Faye ak message déwénat bi d'accord alors Alima xam nga woykat dëgg bu woyee mhm. boole ci xalam da ngay xam ne ne kii waykat la yow maire bu garaaw a toog nii voilà merci beaucoup te ku ne xalam également sa sa ci te ku ne xalam également sa xel dafay dem sunu mam bi ñuy joytu guñ muy alaaji Samba jabaré sambu. wala tey ce sa relation ak ñom waye it sa relation ak xalam ndax traditionnel bi gis nañ ne sax légui jeunes yi dañuy duggal ci seen musique li nga xamantene mom moom di xalam bi lan lay def ci seen way tey traditionnel moy sunu source d'inspiration traditionnel moy moy thème bi nga xamni ñun ci lañ war ci lañuy roté mhm. parce que bu fekkente ni mënuloon nek musicien dañu man musique traditionnelle am na ñoo xam ni coon tey traditionnel. dëgg la boo koy indee traditionnel. mais euh, nit daal li war mooy loolu wax nga lu lu lu ma neex parce que ñoom Amady Ndiaye Samb Samba Jabare ah Aj Mansour moo ma yóbbu la cour des ndax moom moom moo ma jëkk a dugal jàkkaarloo en 1983 la ma dugal jàkkaarloo. te booba xale laa te booba Famba yi sa jiw xaar mbay ma jaaga jëm sekk laa Saint-Louisienne Njaga Mbay ak ñooñu rek noo daan nekk jàkkaarloo Youssou Ndour moo daan def ouverture bi après ñooñu nooy def deuxième partie mu dugal ma ci loolu ah. wàccatu ca nangu naar kon mhm. maa ngi sant Hadj Mansour mi ngeen duppee seen studio bi bii ma càkk Fatim Ngoone Birima Joor Mbaar ndaanaan yu mag yooyu fi laa leen fekk boo fekkee dëkkale dëkkale en 1984 mhm. kon nga xam ni tubaarkàlla macha allah ah 86 la woon deqali. kon ñun voyagé nañ tuuti ak ci sunu sunu aar. da boo jàngee nag da ngay jàng nag ba xam mais daal donn naa ko jàng naa ko am naa teg xam naa am naa ci expérience. lu waay wax wax xam naa ko. wallaay dëgg sunu xale yi sunu sunu doom yi fu nu nekk mën nañ leen fa fekk ñoom waaleeg ñooñu. ndax ndax ndax Waly sax. ak ñoom Momo Dieng koro ñooy xale yi xel. Aliouma est-ce que xam nga lii daf li mu wax nii. Waly ci moom parce que. Euh, gone gi seen mbalax gi nekkee nii dafa saf sàpp ku ne xam na ko. Mhm. mais heure bu ñëwee moom. gàmm bi moom ca gàmm ba rek lay ne. déggal la nga wax sànq ba mu ko fekkee Bercy lu mu ko waxoon mu ni ko. Ah, dafa dafa mu ni ko ne ko à ton ci ni ko musiciens yi ne tekk ñëpp noppi. mu ni ko lan. mu ni ko tu osé. <laughs> loolu la ko Wally Seck keroog Bercy waaw bu góorgóorlu won du exi fi mu nek wallahi deug la bayam da nan la fek na ko mu nek da nan kuli fadli deug la mais mom tam jël na touche bopam lima gëna neex moy dafa dem wuti ben originalité wallahi deug parce que da nan lu nek da ngay da ngay fexe ba am sa originalité bop deug la loolu de moom gëna neex ci woye mooy fek na fi cion deug la mu am touche bu mu nek wallahi deug la mu bàyyi fi touche dem wuti touche boppam loolu bokku na ci tax mu gëna réussir deug la maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax. amiin di ko di ko di ko di ko encouragé parce que moom tamit mi ngi góorgóorlu boo gisee kuy dem da nga ko naan yal na la yàlla yóbbu. Mhm. xale yi ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu ci woy. dëgg la woy daal moom du caaxaam walaay dëgg la kenn du ko foyee daal. ñun daal foyewuñ ko woon ba tax na tey jii ah sunu borom dimbali nañu daal. ki la ki la dugal jàkkaarloo wax nga ko sànq moom lañu ñu fayee euh, studio Zik FM bi ci kaw euh, premier étage euh, baayu Adja Mbaye am na loo ko waxoon. bala maa woon ni Idrissa Adja Mbaye li ma sol yëpp sama doom ji moom ma ko jox. moom Adja Mbaye. waa Adja Mbaye ma génne fii Kor Farba Ngor Kor Farba. borom yaay ju baax ja wallaay ajab ndeyaat tajit mu gore mu baax ma mi réew mépp di jooy mbokk ndeyam Adja Dégén. daa dëggeen yu uuf njabot gi wallahi deug la Adja mbay nak kuma beugal bopam la la mhm. moom ñanga ak nda yaasin mhm. Adja mbay ciub gi ma sol say mako solé bu ëllëgee mu joxaat ma benen ciub bu ëllëgee mu joxaat mako bama ko fekké añam non la ma defal dama ko tégalé deug la nuy nuyu nak tubaarkal la borom kërëm bi nga xamni président de la république rek la gëm bayu jaar yi waaw président de la république ñu ngi koy nuyu bu baax di sargal ci bis bu rëy bi. Mhm. di sargal soxnaam. Mhm. soxnaam it wax dëgg yàlla lu mu man mi ngi koy defanteeg ñun ci lu baax. dëgg la day defanteeg ñun lu baax vraiment ñu nuyu suñu xarit yépp rek waaye daal Aj Mansour ma càkk Fatim Ngone brima Dior Mbaar man dama loxoom diggante la Dior ak Paar. yu ko xàcc ma jox mbañ ngo meram sàll ma dëbbeeg jogo maay keroog xarit ba ci ñunoom gér ña daw kooku moom mooy fierté sénégalais yi. dëgg la. dama seetaan démb rek maa ngi ko seetaan bi muy intervenir ak Abdoulaye Mbaye Peex. dëgg la te Abdoulaye mbay Peex moo noonu ki na laam jëmbatal sëñ Bàmba la dina jebbi boo roosewul dina jebbi. dëgg loolu. Abdoulaye mu ñàkk ki ñaan moomu. wallaahi. ma di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér. amiin waay. man man man man bi ma nekkee xale ba nag ma ablaay mbay Peex dañu yàgg. Hmm. ak Doudou Ndiaye Coumba Rose. dëgg la. ndaanaan yu mag yooyu. Aj Mansour nag. Mm-hmm. mooy idolu Sénégal. Mm-hmm. moo boole mbul ak lambaay kenn meru ñëpp ko bëgg. amul noonu ci Sénégal. ay li nga ko wax. da rek gudd fan. <laughs> ñamal ma ñamal ma as lëf rek ci li nga ko wax ma dem xool Idrissa Diop suñu papa Idrissa Diop ban message la ñuy jox ci korite gi. <laughs> ayca euh, bu la neexee ba tey ñu dem xool euh, suñu papa Idrissa Diop moom itam ndaanaan bi ah l'international nga xamee ni il a sillonné le monde entier Sénégal wax naa ni sax yenn saay dañuy fàtte yenn yenn jaar-jaar yi Idrissa Diop taxawal na Sénégal fu nekk macha allah taxawal na itam suñu drapeau fu ne ñu noo xool message yu koriteem lan la. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Sen TV di leen bëggee di kontaan bu baax a baax a baax ci yéen seen liggéey rafet na di nuyu waa Grand Plateau bu wóor te wér bu baax di nuyu Alima ak Momo vraiment di leen bëggee bu baax di leen sant di leen gërëm di wax nag pour. Euh, Covid bi nga xamni moñu moñu ñu fi mu nek ni depuis très très longtemps bu lu yag vraiment di leen wax ne leen dafa am c'est important ñuy raxas loxo yi ah di sorinte bu bu lu sori quoi di sol masque di masque ni di ko di ko def dal ni nga xam mom la ko médecin yi docteur yi ak professionnels yi c'est important di sont ko ñaan Sénégal di ko ñaan wa bi ñuy parce que li dafa important ñu ci xel lu ama am la lu donc attention je pense que du baax ñun dal collectif artistes ci Sénégal def pour mobiliser conscientiser sénégalais pour ñu bàyyi ci xel di leen gërëm di leen sant Alima yow ak Momo maa ngi leen di sant di leen gërëm def attention bu baax nañ protection yi wóor te pour mi ngoog kaddu euh, yu kaddu porteur de voix la mu di euh, suñu papa Idrissa Diop per ñu ngi lay fay bu baax am nañu mbégte euh, li mu wax nag am na solo fàttali na nañu sàmmoon sàmmonte ak mesures yi nga xam ni moom la ñu kër docteur digal ñi joxe seen ay message yu déwénati bëri na gannaaw père sa Diop dem nañu seeti Fallou Dieng càmmiñal Ndeye Marie ñu xool moom itam lan la wax ci korité bi déwénati kontaan naa tey si ziar bi nga xam ne defal nga ma ko tey ci bisu it Euh, bisu korité mu doon loo xamante ni dama koy rafetlu bu baax a baax a baax di la gërëm di la sant di profité ci occasion bi di souhaiter waa Sénégal yëpp euh, bonne fête de korité di ñaanal di ñaan ñëpp ni ni ñu dugg ni ci duggee woon ci bisimilahi rahmaani rahim génn nañ ci alhamdulilahi rabbil alamin ñuy ñaan yàlla lépp loo xamante ni ñaan nañ ko ci ci koor gi muy julli yeeg ñaan yeeg naafile yéeg lépp yàlla na ko sunu borom nangu. ñuy dund nag ñaari weeru koor maanaam dañoo dund mbas mi ah mu jiitu weeru koor gi ak koor gi donc lu ci waaye doon def ci lu baax gis nañu ndimbal yi gis nañu tamit ni réew réew mi jàppalante et je pense que loolu dafa war a continuer sax ndax li ci topp kenn xamul fu muy egg ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla saafara mbas mi ànd ak weeru koor gi nemes nementeñ ñëpp mën delluwaat seen ay activité aloon naa projet nag waaye mbas mee ko yàq de de. waaw moo yàqal ñëpp waaye ñu si sant yàlla nag bu baax tant que yoon jeexul waaxu si lu jeex lii nag ni mu amee bu kenn traumatisé wu parce que tamit aussi nit da ngay gëm yàlla lu mënte am tamit bu amee da ngay jàpp ne lu gën la ñun fekkee nañ ko am na ñu ko fekkeewul am na ñoo xamante ni tey yàlla moo dogal ni mbir mi da leen di laal mais am na yàlla ñoo am ñoo xam ne yàlla dogal na ni mbir mi du leen laal dañu ñaan yàlla rek mu jeex ba ñu mën a eggaliwaat projet yi parce que amoon naa projet boo xamante ni tey dama doon def album boo xam ni remix lay nekk boo xamante ni ancien titre Fallou Dieng yëpp la ñu bëggoon jël ba pare organiser mu génn ba pare ñu organiser benn grand théâtre bu mag mais malheureusement sottiwul dem naa fi France récemment def euh, benn prise de contact seet sama ay partenaires def fa benn genre 20 jours négocier fa ay contrat ba war a delluwaat avril mbir mi naax saay <laughs> <laughs> donc ñu ciy sant yàlla bu baax daal xëy na nag jaam pexeem ak yàlla yàlla ak dogalam ñun ñoo ngi ciy sant yàlla tax ñaan euh, lii dem ba jeex ñu mën a reprendre tamit suñuy activité bilaay corona bi li mu yàq bëri na <laughs> corona yàq na loo xam ne sax eh, xamu ko mais yàlla baax na yàlla ñu yàlla tàqaleeg moom nu mu gën a gaawee jërëjëf Fallou Dieng daanaan bi moom itam macha allah eh, ñii dafa dafa jar ñu leen di sagoo ni ñuy sagoo ñoom ajatu ki nelaam ndax nag eh, taxawal nañu Sénégal fu ne yóbbu nañu itam suñu drapeau fu ne ñu àndandoo dem xool Mbaye Dieye Faye surtout 5-5 bi moom itam joxe na message yu koriteem déwénati ñu xool mbay Dieye fay spécial Ndewenal tey du ma leen may dara waa Sen TV tey nag ma seet si le grand frère le maestro l'incontournable koo koy kan ndakaaru jël Diop ndakaaru Sangomar koo koy Mbaye Dieye Faye l'international Mbaye Dieye Faye grand déwénati mais fekkeel déwén so grand baal maa ko baal naa la baal ma waay nu yàlla boole baal amin gannaaw bi ma la ziyaar yi ah ziyaar téléspectateur Sen TV yëpp te spécial ndiwanal bi nga xam ni yaa ngi koy def yow di ko présenté ziar sama rak euh, muy kilifa Sen TV di Bougane Gueye Dany hmm? taalibe seen Mbàkke soxna Lo sama rak waaw sama rak sama xarit loolu moom yàgg na barki démb Njaay rek ñu ngi taxaw fii sama buntu kër fekk muy romb waaw donc di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak bu dee tooñ nañu di ñaan euh, yàlla nangu ñu sunu woor sunu ay julli euh, ak lépp luñ ko ñaan ah, sunu borom def ci réew mi jàmm te xam ne fi mooy le pays de la teranga réewum teranga rek la euh, réewum jàmm la bi nag dafa wuteeg ñi fi daan am ndax ku ne xam na ni korité euh, yi daan na gën a yëngatu mais ak mbas mi dal sunu kaw euh, tax ñëpp ànd ak dal di ñaanal ni nga xam ni feebar bi dal na seen kaw sunu borom wéral leen ñi ci génn àdduna yàlla xare leen àjjana euh, waaye nag ñu koy nangu nag di ko daloo nag di ko tegoo parce que lenn rek doy na fekke te sunu borom may nañ ñu fekke waaw xam nga man korité ñun nin ko daan dundee sax laay waxaan ni ko àdduna yëpp daan dundee wute naak ren wute naak ren ndax euh, lii dal sunu kaw téye àdduna ak loxoom waaye terewul nit ñi daal ku ne moytu rek ku ne moytu euh, bon gis nga njaboot gi ñu ngi fi ànd ak ñoom féete ko ak calme nag. waaw waaw au calme quoi feete ko euh, ziar ñu nu war a ziar ñi nga mën a dem du bari nag nga yegg fa ñenn ñëpp téléphone lay doon waaye euh, waajur yi ñoom il faut nga jóg dem fa. waaw ziar leen loolu moom mënta ñàkk mais ñi si des nga woo leen téléphone ziar leen comme ni ma ko defee ak ñëpp euh, ziar sànq sama seex sama xarit. sama jumeau muy le président Youssou Ndour moom tamit ñaanal ko jàmm parce que njiit rek dafa metti te bu yàlla defee ay doomu aadama bootu sa ginnaaw danga ku mel noonu da nga koy ñaanal jàmm donc moom yàlla na am jàmm ak artistes yépp nag ndax ku ne xam na ne artistes yi fi mu nekk yëngatuwuñu ah waaye nag terewul nangu nan ko tegoo nan ko alhamdulilahi rabi alamin yàlla na ñëpp am jàmm Sen TV am jàmm son nga am jàmm caméraman yi am jàmm ña fay liggéey am jàmm waaye bu ngeen julleetee ba pare ba ñaanal seen bopp mooy li ma wax Youssou ñaanal leen bugaan ndax njiit dafa metti te galgal yi dafay metti te amaana sax ku ne yaa ngi def dara pour rek mu gën la jox bopp kon nag kooku dafa laaj pour ñu ñaanal ko moom itam ah waaw parce que ngay tedd ci keppaaram dëgg la yàlla dogal ni moom ca keppaaram googee ngay amee li ngay am ba mën ciy dundal ay nit donc kooku danga koy ñaanal mu am jàmm ah Bougane yàlla na am jàmm. gaa yi rek a dëggandoo c'était spécial ndéwénal ak Son euh, sur la Sen TV. ànd seeg la maestro l'incontournable Mbaye Dièye Faye gars yi du ma leen may dara de ak seen TV au calme xam nga show nag moom euh, dafa garaaw euh, bu doxantoo daf ñuy indi rek euh, yoo xam ne dafay féexal suñu xol Mbaye Dièye Faye man damaa yaakaaroon sa rakk Fallou la. Mbaye Dièye jaaxalu leen. li daal li daal Viviane ko dal. dëgg la de li daal Viviane ko daal wax nga ñoo bokk feebar ñoom ah? ñoo bokk feebar ñoom. dëgg la. waaye hygiène de vie rek. papa de mi ngi mel ni ko am 18 ans fi mu ne. hygiène de vie la rek xam nga mbay mi. ma <laughs> tooñ sama yaay maam Ndiaye. ah ma ngi mel ko am 18 ans. waaye <laughs> mbay mi ah nañ ko ko seetaan nii rek. ñu nangul ko ko. yàlla baax na te nangul ko ko. ajana. <laughs> Ah, man je pense ni mu mel nii ki ku ko bëgg aussi mën nga ko mel ci kaw nga mën a toppatoo sa bopp rek am hygiène de vie comme ni ko Momo di waxee. parce que hygiène de vie moo ah. ko ñun lu ne la ñuy lekk. lu ne la ñuy lekk lu ne la ñuy xalaat. lu ne la ñuy lijjanti. stressé. voilà le stress. moo màggatal nañ ko nañ ko moytu. nañu màggatal yow ci mbay jee rek laa gis nit boo xam ni dina nelaw lu mat douze heures wala treize heures de temps par jour. dëgg la de. ci mbay jee fay kott laa ko gis. dalu dafa baax dalu dafa baax. Mhm. Euh, esprit maanaam cerveau da nga koy noppal. xam nga mënoo mënoo xëy suba ba ngoon. di di yëngatu nekk ci ay mbir di liggéey wàcc boo jógee ci loolu euh, coono kër gi jàpp la nga nga nga nga mujjee brouillé maanaam yaram dañ koy noppal mais aussi xel dañ koy noppal nañ ci bàyyi xel bu baax parce que je pense que noppalu moo tax mu mel nii mu mel am hygiène de vie bu baax aussi je pense que moo tax mu mel nii mu mel xool lu ñuy lekk xool lu ñuy naan xool aussi yu ñuy def parce que c'est très important. Mmh. ni mu mel nag wax leen ci nànk ah parce que suñu yaay ñi seetaan maam Ndiaye <laughs> Adja maam mi ngi ñuy seetaan ah Fatima. waaw ça moom c'est vrai. nañ ci wax ndànk rek toujours égal à lui. yemal ci loolu yemal ci loolu. ba oui suñu papa la nag qu'on se dise la suñu papa la donc loolu rek la ñu mën a wax de koo xam macha allah comme d'habitude ah bu génnee rek ñëpp dañuy kontaan dañ naan waaw mais. voilà boobu macha allah comme ni ko waxee rek jana hygiène de vie dafa baax loolu ci doomu aadama euh, di tëdd waxtu euh, même bu fekkee ne sax ñoom seen liggéey dafa metti ñëpp xam nañ ne kuy artiste guddi ngay euh, liggéey guddi moom dafa metti donc boo xëyee war ngaa mën a noppaleeku dallu et puis comme euh, Jana ni mu ko waxee aussi le stress aussi ça joue beaucoup ça joue beaucoup donc ñu koy jéem éviter parce que day indi ay gàllankoor yu bare bare si suñu dund dëgg la mi ngoog euh, wax na itam message bu am solo ci euh, président Bougan Gueye wax na ko ne loolu la wax si bi nañu ko ñaanal ndax nag njiit dafa metti wax na dëgg yàlla na yéen bi oyof président Bougane Gueye Dany surtout nag ci weeru koor bi nga xam ne sonn na ci lool génne na lépp li mu mën ak li mu mënul pour ñu bégal téléspectateurs yi alors directement dañuy dem xool yi Queen Biz mu ñu dellu see wax ak Adja Kiné Lam ñu xool Queen Biz man xale bu sob bi laa ko tuddee nañ ko xool ñëwaat di nuyu Sénégal yëpp di nuyu téléspectateur Sen TV yi di leen baalu ak ah di leen wax ne nag nañu baal parce que ñun xam nga quand on est déjà une personnalité publique déjà xam nga dara yombul daal parfois mun nañuy togn wala ñuy vexé te duñ ko yëg donc euh, tay nak occasion la pour ñu balu ñëpp ak ah ci weer bi tedd bi ñu joggé diko fété tay ci korité bi baal leen ma ak baal naa leen àkk korité tamit damay defar ba mu baax dama dama yeewu suba tél def sama araw def sama bu baax def def laax nëtëri ak soow <laughs> ñaari façon laax <laughs> ñaari façon laax nëtëri bi ak soow bi laa defar daal di togg nag tey tamit def ñaari façon togg daal. woor naa franchement woor naa ci jigéen mën a woor yëpp wax dëgg fa yàlla woor naa ko donc euh, te koor gi tamit xam nga ren dafa tombeek période bi nga xam ne neexul noonu. Donc, euh, mais bon, ça nous a permis aussi de rester en famille. Tout le monde est impacté. liggéey yi taxaw nañ vol yi dematuñu kenn dematul daal léegi nag ñu mel ñu nekk prison donc euh, mais nag lépp rek yàlla la sunu borom mooy xool du ko namm ci ay jaamam mu def leen ko mu teg leen ko. donc euh, lii aussi dinañu permettre ñu gën a natt suñu gëm-gëm ci moom gën a delloo suñu bopp ci moom di wax aussi ni ko metti mais wane na ay valeur élan de solidarité gis nañ ko fi ñëpp ñi ngi jéem a di jàppalante di def ay affaires ñi ngi jéem aussi di profité ci suñu famille parce que c'est vrai amuñu woon jot duñu woon toog lu bëri ci en famille xam nga te yaa ngi daw yaa ngi voyagé yaa ngi def li yaa ngi def la yaa ngi nekkoon ci dans dans <laughs> dans mille et une choses mais tey Euh, franchement ñu ngi toog en famille nee naa loolu dafa neex aussi mais corona bi metti na ñu bàyyi ci xel bu baax mu ngi ci dëkk bi donc euh, man damay xaw a seetlu ne xëy na sax gars yi ñu ngi commencé bàyyeeku tuuti mais ñu gën a yokku bañ a bàyyeeku ñu respecter les mesures barrières parce que même bu dul da ko fiy jëlee à 100 pour cent dina ci wàññi dara donc lépp lu mu ci mën a wàññi ñu jël. xale bu sob baa ngi noonu jàmbaar la moom itam saa bu xëyee eh, bu génnee eh, dara tay lu bees nga xam ni eh, jàmbaar la te itam tubaarkàlla mu ngi fexe nu mu bégalee suñu ay téléspectateur surtout ci message bi mu joxe waaye mu ngi fexe nu mu bégalee soppe yëpp yaay booy xale yi boo leen gisee ñuy way bala maa ñëw ak yow ci may Dieye Faye ngay taxaw ci moom boo gisee xale yi macha allah ñuy évoluer ci musique bi lu mu lay def oh ndeysaan kuy mbiis dama koy seetaan léeg-léeg ndeysaan moom it mu ngi góorgóorlu. walaay jàmbaar la. di évoluer tamit euh, moom tamit di imposer boppam. Mhm. ah da leen di encourager rek. dëgg la. maa ngi leen di encourager ñoom ñëpp. Mhm. sans exception nag. ñoom ñëpp laa bëgg. dëgg la waaw. sànq nag euh, ñu ngi doon tooñ euh, sa càmmiñ sa xarit Mbaye Dieye Faye càmmiñal Maam Ndiaye. moom itam mu joxe message bu am solo euh, ba xale yi tooñ ko sax ba wax ci melokaanam ma leen bàyyi leen jàmm ndax euh, suñu yaay maam Ndiaye ñii seetaan. ndeysaan wallaay moom moom sama xarit la. dëgg la. ndeysaan su ma daan def album ak Habib. Mhm. Habib daf koy woo mu ñëw. Mhm. dégg am na benn album boo xam ne sax mu nga naan ko maam Ndiaye yaay xaw ma kan boo soqee mu set. te boo wolee mu mokk rumbu. dëgg moom ndeysaan moom moom moom référence la. ndeysaan wallaay mbay moom. ku bari bax la seug seug birim geey kew yaaya wa jaay deug la man su ma leen xol toujours sama xel nay nek ci abib deug la nga xamni sama xarit la ma makoy ma euh, ma ma ma ma ma di ko toujours njabootam mhm. ay soxnam ku melni Nice wa deug yalla ak Umu abib ñom ñep ma ngi len di ma ngi len di sargal ci bis bu tedd bi mhm. di sargal bu bax nak may jey fay mom mom mom moom tubaarkal la ba mu jàppee nit ku bax la nit ku baax la nit ku am nit ku am valeur la. Mhm. nekk fi mu nekk ñépp xam ko ak moom vraiment muy joxe contribution bu baax. Mhm. moom moom nitu valeur la. wallaay lu rafet rek lay wax euh, léegi nag xam nga sànq wax naa ni première partie bi jàll na ñu ngi ci euh, daanaka dernière partie bi ñu des ci ay simili yu bëreetul euh, wax naa la sànq nag comme fi mu nekk nii corona bi tax na géwél yi yënguwuñu ah tëgguñu. demuñu fenn may euh, passage maa ngi nuyu euh, suñu yaay Adja Ndeye Diouf mu Serigne Fallou mi ngi ñuy seetaan waxtu wi ñu ngi koy ziyaara bu baax ndaanaan la moom itam ah, di ci ziyaar itam bu baax Adja Ngoy suñu yaay mu ngi ñuy seetaan heure bi sénégalais yi nekk bi bitim réew ñoom ñëpp kenn nelawul euh, ku ci nekk yaa ngi fësal sa cofeel ci Sen TV la télévision leader yaay comme xew amul tëgg amul Sen TV bàyyi la rek nga wax ak géer ñi xëy na joxe dinañ ñëw am na loo waxoon Adja la waat de maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. walaay. nuyu ajartu Mama Morone ci Paris. Mama Morone. di nuyu Ami Diawara kenn ku ne xam ne sama diggante ak moom. walaay kon Cheikh Kanté docteur Cheikh Kanté mu baax mi. sans waa ji. nga xam ni maa ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér. moom la ñu ko Nafisatu Diop. ñoom Binta Xuma tubaarkalla macha allah Ndeye Fatou Ndoye mu baax mi nanda yaay Ndiogu Ndoye. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mouhamadou Assane Ndoye. tubaarkalla macha allah Cheikh Gumbala sama waa ji. Cheikh Amar kenn ku ne xam na ni kenn la ci man dëgg la de koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér. yàlla may ko jàmm lool. amiin tubaarkalla macha allah. di nuyu sama xarit yëpp. di nuyu sama géer ñëpp El Hadj Cissé. Cheikh Gumbala sama waa ji nga xam ni ah ñoom tam ñi ngi dinañ tax yow tamit coronavirus bi léeg-léeg sax nag ndeysaan waaw ñu baax ngi noonu. dëgg la de. waaw tubaarkalla macha allah yow nuyul ñëpp rek ñoom ñëpp il faut nga nuyu leen. nga génne kii bi. <laughs> dëgg da ngay indi liste. ah indi woon naa liste bi damaa gis. génne liste bi ma xool waaw. léeg-léeg ñu yor kii liste. liste bi ana ana sa liste yow. yaay nee na nee na liste la indi. corona bi kor na ñëpp momo waaw muy nuyu soxna Baali bu baax sëriñ Abo tubaarkàlla macha allah sëriñ Maxtaar. doxalal de ah. doxalal de. Cheikh bu baax ba Seyna Buli Mbàkke. doxalal yaay booy soxna May. waaw mm. tubaarkàlla soxna Assou Gaynde Fatma. Mm. Ah, Alaji fallu Diop. Hmm. aja tu mau ca Paris. ñëwal aja tu cubu ca Paris ma ñëw wala baax na. dikel ya, yaay dikkal loolu dañ ciy baax de. dikkal wax nuyoo bi sax dafa baax. ajatu Ndella Wade moom bis bu oh, ne ma nuyu ko moom. xam na samri may jéemi segu. dikel. dëgg la tubaarkalla macha allah. Hmm. di nuyu nak sama xarit yépp nak hmm, di nuyu alaaji Mbaye Dia. dëgg de. kooku nag moom mau sama lépp. moom këll ba ca bàq ya. kooku day garmi. ma koy nuyu bu baax nag. kon ajar ki ne. Kina Mbaye Dia maa koy nuyu bu baakha baakha baakha baakha baakha a baax ak kan. Ndéla Ngom Sedima. dëgg la Papa Ngom. tabarakallah Cheikh Amar sama waji Cheikh Gumbala. dëgg ah. Cheikh Kanté sama waji koku mu ma tuddu Serigne Mbacke Ndiaye kor fofu ñaan. a ah, Ndéla Wade. dëgg de. tabarakallah wa kër Biti Loxo Guèye. dëgg la. tubaarkàlla macha allah ah. la belle Tabaski Thiam. aja Tabaski cham kenn ku ne xamna ma ak mom mom nga ne won teug dawul baar Ndeye Fatou Ndoye Nafisatu Bàccili nga xam ne moo hospitalisé woon sama jëkkër ju baax ji moom nga ni woon am nga maanaa am jom ah waaw waaw Nafisatu Bàccili gor waaw waaw looloo maa ko waxoon <laughs> tubaarkàlla Adja ju ma jaxate ju ma jeng mi la woon bayti laay ma am doom tuddee ko moom mën naa wax ni ci sama première guerre ci la bokk mais xamante moom booba xale laa booba aw ma borom kër kër ba amee borom kër yére yi ma sol yëpp tukki yoo la ko jëndee boo koy juma jeen doomi Basiru jaxate ak su Jalla Gueye mu bax ma. borom Tëngéej. bëgg ma rek. ndeysaan te musuma bayyi walaay dëgg la tubarkalla allah ma ngi nuyu ñëpp ajaratu Koura Sarr. Mhm. di nuyu ajaratu khadi Koura Sarr ma ci amerique ma ci amerique ah, waaw ne Samb. yaay ko nuyu nuyu nañ ko. Ina job ma ngi koy nuyu gaña ngogu <laughs> ak ñoom khadi Sall. yow dal ko nuyu nuyu walel du tubarkalla ma am ku bax uh-huh. ko xamni heure bi mi ngi ma waron fekk New York man sama biye ngi sama biye dal taala mo ngi ci sama armoire. deug la. tubaarkàlla macha allah Ami njaay boota sama xar bi moo doon xew le 18 avril yàlla dogal nu fomm ko. albur biram pinna ñéeme ma ci gëdd ci nga ne neen lat ko di ñéeme njote mbakkar ko di bii gi biram pinna fari mata ni mook dorobe alburi fat bu ja maa ngi nuyu fat saam mhm. sama waajooju maa ngi koy nuyu torop dëgg la muy sama xarit di Ami Njaay boota mhm. nuyu waa Amérique su ma limee rek fii fanaan boo limee rek da ngay fanaan ajot daxin ngoom maa ngi leen di nuyu. wallaay dëgg maa ngi nuyu sama xarit yëpp. maa ngi nuyu sama géer ñëpp ajatu maam Morun ca Paris. Mhm. tubaarkalla macha allah ajatu awu ci bu Ina Diop. nuyu naa ñëpp. wallaay ndax léeg-léeg sax danaan kon comme nag kona kii bi. corona lu fenn rek <laughs> nekk nii géwél yi kenn demul fenn. dëgg la Njong waalo waalo bi. ak moom i kebe mu baax mi tubaarkàlla macha allah. moom i sëñ Ablaye Tage. waaw Ablaye Tage. nit ku baax. yónnee su ko moom ku baax la. wallaay dëgg la. waaw du nuyu rek njabootu sëñ Tuubaa yëpp. tubaarkàlla maa soxna moom i sama sang bu baax bi. dëgg la rakki soxna Baali. dëgg la Baali soxna Baali mun taxaa sama sëriñ sama xarit. wallaay yal na yàlla guddal fanam sama sëriñ bi. wallaay dëgg la. sëriñ son yi booy bàyyam xut bu samaanu jamono Fatima Diop xam naa maa ngi lay gaañ waaye xam nga man ak ajatu kinne laaw dañoo dañoo dañoo bokk ay géer moomu moo tax ma ne ko yaay ko nuyu rek nuyu naa ko da ne bokk bunt dañoo bokk mag moom waaw bokk bunt bunt xam nga man ñii laa maase <laughs> dëgg la <laughs> jana man man ak ñii ñoo maase daa mel ni la sol man de pour man sax dañ la sol yow ah pour dañ la sol yow ñii non boo fekkee ñoom saraanoo xam wala gën a taya lay lay la laa negal ah bëggoon fi mu ne xanaa bu yi passé rek dégg naa kon ara kon kii tabaski ju du ko fekk Fatima <laughs> dégg naa mag ñi gone ak dara lañ koy wooyee moom. mag ñi waaw moom <laughs> yaay mooy mi ngoog euh, Aïcha euh, wóyal gu la neex. ma Aminta Sra. Mm-hmm. yaay Serigne Moussa. Mm-hmm. dëgg daal nii la géer di mel ami la guerre di mel ami Collé dëgg dëgg daal ni la guerre di mel Aminata Sourang Mbéré man daal li ma koy wax jiitu na ko ami Collé করলে soxna ñaan binta soxna ñaan matar numbe soxna ñaan ami kolle bilaay li ma koy way loolu romb na ami kolle sa baay tudd mbokk ndeyam ba bak yuusu ak maalik ajat nday surang ma ca lambu diis ba ami kolle alaaji moo rey sa baay ma surangay baayam moo jëkk boole fukki këram ak ñaar jox ko seex Moodu Mustafaa Mbakke addiya bi mu desee la jumaa ji taxaw ah man de li koy wax jiitu na ami Collé yaay Moussa li ma lay woy romb na la ami Collé selñaan Yaasin Jóob nu mbaan sàmm jaxeer jéenu ko baasin giran tase giran ak lat samba ko ca jam jam moroomam yaay Xaadim Rasuul yaakaar nga fi mareetu kor allah ji ñiili sayar maram daaro bilaayi la ma koy way ki romb na ko ami lee soxna ñaan ma dun soxna ñaan numbe soxna ñaan yaayi Musa Mbay la ma koy way kii romb na ko ami ko lee alaaji lu neew la saabu ma saana jëf tooy lool mel ni bugaat dani nday fal xadi waale yi sa yaay aminta surak nderi yaayi maam Cheikh yaayi Sofi Mbay yaayi daba jiili na la ami Collé day xar fan yaale yaayam njaga ku ma bee guña ku ma law bee ku ma law bee soxna Faal ma yaxaram liggéey mbokk ndeyam Seex Mbàkke Njaay mu fi fi aminta surang fifi yaay aminta surang fifi yaay aminta surang Cheikh Mbacké Ndiaye jaga kumbalaw be guño kumbalaw be kumbalaw be soxna faal ma yaxaraan di jeey mi ngiraan dee calaw gankel biram guñu damel ma joor damel ma xureje kuleek daw de ma xureje biram ba nga xureje kuleek ko de seen jigéen damel ma samba tak koy maamam Mbàkke Njaay mu fi mu ajaratu fat mettukat daga ku mbalaw be gu ñokku mbalaw be bilaay man de maa koy woy kii jiitu ko ami may ku mel noonu ki ma mayoon kilo ngalam mbaa ngi noonu ko koy aminta surang nderi sel ñaan yaasin jom nu maan sàmm jexet yéen ko baasin giran tase giran ak lat samba ko ca jam-jam morom ma at lay soxna ñaan ak ma doon soxna ñaan ma tàndu mbee soxna ñaan saxor fatma sa maama tëgg dënd yi taal jàngu yi ma fure jëbiram fatma dawra bu yendal njoojom mu daw birima yendu fa yendoon naan ay ci takko du Samba ak Fatma ak ma fure jaag jor juróomi li ngeeri sax wer seen baye nga tam jàmm sama waaja nelaw na ew eh, kumalobe kumalobe kumalobe soxna fal ma yaxarem di jeey Mbàkke jaay mu fi fi ñaan yaay aminta sura mbokk ba yaayam penere ñaan yaayi joor jaay keroog ba ni xale ca tool maalum jumba ca jabaas fasu naan asan moom lañ ko boole ñaagu ak yàgg nee na saful asamaan saf nanu daaw saf sa da ko ci gëlëm yóbbu leen sun Malamin ya xamaama moom mooy njàmm jaan sunu dëkk ba bàyyi fa ñaan billaay dëgg dëgg daal nii la gir di mel aminta surang bere. yaayu ummi mbay yaayu mam cheikh yaayu musa yaayu mam daouda sama waa jaa nga ci dëkk bi naan lugaloo den alaaji ji li bay Cheikh Madi Kabir Baye moo ni woon sëñ Bamba ne na sudul man di mom lay kaf kaf la la Kenya ma banteñ lay kaf kaf la la Kenya ma banteñ sama waja dawraas mu yandal ñojam ñojam daw bir ma yandu fa yandor naa baay si tàkkoot du sa bag fan mam ak muxrij ak jor ji mbirim liggéey yi sax wer seen bàyyi nga tam jàmm amin tasur ak mbeer yi suuf mën naa lekk yax fi lay la mel amin tasur waaw bi guddal sa fan yow itam. Iya, eh li may wax ni euh, bu wayee mu ne xol yi sedd waaye bu miimee sax dafay neex xol yi daal sedd kon ni sambalaw be xaar yàlla tëggal na buur tugal ni biraayim mbaa cëb maar biti loxo xaar yàlla tëggal na buur xar yàlla tëggal na buur tugal biraayim mbaa coob maar loxo macha allah Yaasin Kumba ak yaayam ay Yaasin Kumba Yaasin Ndaw Lamin ma xuree Yaasin nuuj man tay baayam càmmiñal ma ree ma tëgg yaay fati bala mi ci ndar ngone fale yaayam sama waajaxaa lobeyaar yàlla tëggal na buur ni biiraayim mbaa coob maar biti loxo wallaay <laughs> bu goog Eh, lu mu ci way rek dafay neex te dafay sedd xol yi sama lawbe Ibrahima Mbacco maar tëgal na buur ca sama lawbe xar yàlla Mbacco mbaru jos ba tabara ja nga yaayam ma tugay seega yaayam wi ji caama yaayam sama lawbe daar yàlla rombu jos ba samaam tugal na buur ca tuugal sama ma yaasin kumba ak ma yaasin kumba yaasin ndaw lamin ma xurej yaasin nuuj man tay baayam ca meññal ma rema tëgg yaayi fàtti balla ma ca ndar ngone faale yaayam biron ko noy baayam ma mara sa njoor ak raam ak maar faxe yonge maar maar sama waajaa nga tuuba kay samba law be xaar yàlla tëggal na buur tugal ni biiraayim mbaa coob maar loxo macha allah te bari nay Fatou yaay Cheikh yaay Omar Bongo sama waa jànga Tuuba ajaratu bi di loxo geey sama yaasin kumba maye yaasin kumba yaasin ndaw la bin mas xure man tay baayam kon samba law be yàlla tëggal na buur biraayim mbaa coob maar biti loxo <laughs> jërëjëf lam kon Birahim mbàccob ma biti loxo walay waw eh. da ngay wat demb deug la aw bu la yalla may ñu bax mhm. ñu def ci yow lu nekk ci aduna bi mhm. mok la bel tabaski jaam deug la deug dawul mbaar deug la mom la bakkon diplôme yoo ya la ko tonto bandaram kan yónni maar Yacine Ndiaye ma daawru yaat ma. kenn ku am Fatim Sey. ak magum kër Fatim Sey. oh am sotoog ma bu soog Boubacar Amadou Thiam Fatim Sey. laay ma gàmmu Thiam Fatim Sey ñooñu ma wuute bu dem soggay seen baay. wallaay ma sogg Penda Doro maama ma nga des ca Talaatay Diallo waale bala Diop Diop a nga génn jeer ma jawaar Fatia am ngi bur jaaj bi bur jaaj na ree ñaaw maama ma jéngu dee bandaaram kan ak yaa mbaaraan aram kan ak mbaaraan xayte ji. dégg lool. <laughs> ma waroon nag jàmbur maa joojoo kor leele kumba joojoo kor leele. yaay yaay boobu nag da ma koy tëjalee boobu da ma koy tëjalee jotaay parce que boobu daa neex lool macha allah te xam naa ne ñu ñëpp dinañ ci kontaan mais téléspectateurs itam dinañ ci kontaan damaa bëgg ñu dem xool yi euh, Alassane Ndour. moom itam ah joxe na message yu euh, déwénati euh, ci korité bi ñu xool lan la wax. bal ma ax yal yàlla boole bal suñu borom jéggal ñu. koor gi moom ñu ngi ko dundee vraiment ci euh, ci ci ci xel mu tey malgre que mbas mi euh, dugg na ci réew mi donc euh, dugg na ci réew mi ak doole parce que tey boo xoolee nombre de cas yi fii yu ministère bi di annoncé maanaam bëri na jéggi na dayoo. xalaatoo kenn xalaatewu ko nii ndax ba ñuy tàmbale premier cas bi maa ngi koy fàttaliku donc mu nekkoon coow lu rëy fi waaye tey fu ñu toll nii ñu ngi comme dugg nañu ba ay 2000 la ki yooyu donc euh, doy na waar daal xanaa rek ñëpp war a fagaru rek ñëpp war a dugg ci xeex bi ndax comme arrêté na lépp stoppé na activités yi stoppé na àdduna bi donc euh, kenn mënatul dem kenn mënatul ñëw donc euh, ñu xeexul rek je pense que nous sommes euh, dans la durée bu sommes yenen dëkk yu ci déconfiné mais parce que dañu dañu gérer top géré wu euh, de telle sorte que le virus bi bu pas ci biti sax du am kumuy wal projet yi euh, dañuy def ci continuité du cœur. parce que comme dañ ne toujours l'appétit vient en mangeant nous ci duggé ci cadre. Euh, distribution de daara yi dugg ci daara yi gis daara yi nu ñuy nu vivre mu nek lu xaw doy donc euh, metti na ci ñom metti na trop. voilà askan bi daara vraiment metti na quoi c'est difficile waye nak hein? comme c'est difficile pour tout le monde am na ñoo xamante ne nañ survivre wa am na ñoo metti na trop donc ñu xalaat ne dañuy continuer suñu lancé bi Euh, ci daara yi waaw mais di ko def euh, benn tous les premiers vendredis du mois. léegi ñu def benn màjjaal bu yaatu boo xamante ne lu waay am rek. Euh, ci dund projet bi sax dund daara la tudd. voilà lu waay am rek loo xamante ne ceeb la wala diwlin wala lépp li nga xamante ne daara soxla na ko bu dee sax ay yére. yu sa doom solatul sax mën nañ ko récupérer daf ko lu bu baax choisir quelque daara. Je len ko jox len ko len ko donc dina dina dina tax ñu continuer suñu activité dina tax tamit daara yi ñomit nous ñu ñu ñu am euh, ñu am yenn ñu wañi nous choono ci ci ci ci bi comme nous len genn len ci tali bi mëno to len doxantu to len saraxu ci mbedd donc nous len sant moy top nous nous waye ko top nous alcorane tamit tamit voilà donc euh, ñu leen di ba ñu ñëmantal leen ne dañuy continuer ci projet boobu Marmite du Cœur man ak ak équipe bi donc chaque vendredi premier vendredi du mois rek ñu def maajal bu baax. voilà mi ngoog Alassane Ndour international sénégalais bi moom itam euh, am na so am na solo li nga xamee ni euh, moom la joxe comme message chon xam naa ne tey dugg na fépp ci ndakaaru dañu daal dem xool baxaw mi nga xamee ni moom itam kenn la ci hip-hop bi Euh, ñu xool ko moom itam lan la joxe message. yow salaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal nuyu aliment di nuyu Momo euh, di nuyu waa kër gi yëpp euh, di wax na tey bésu ijji la ñu ngi baarante ax ñu ngi wax nañu sénégalais yëpp baal ak ñu ngi baal ak ñëpp te ñaan yàlla it ñu fekkee wat ko ay déwéni déwéni déwén si dërëje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam souvent gars yi dañ naan bu na yàlla mel ni déwén waaye année bi moom wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a tindur ci beneen année ndax nit ñi si euh, côté jàngoro sénégalais yi sonn nañu àdduna bi sonn na parce que tey gis nañ ñi nga xamante ne ni julli nañ julli woo xamante ne tey ñu ci bëri bu ñu sekoon tey dem julli seen wetu waajur yi wala seen wetu mbokk yi wala seen wetu soxna yi mais yàlla moo def na mu am benn jàngoro bu ñëw si àdduna bu tudd Covid 19 mu bloqué ñëpp donc maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu nekk à l' étranger ñëw pour Korité si tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm te xam ne ne lu ñu muñ rek mu jeex nañ ko muñ loo santee ko yàlla ndax lu yàlla def rek moom moo xam lu tax yàlla na yàlla def jàmm yàgg. ñaanal yàlla sàng sutura àddina ak alaaxira sutura su ñaanal yàlla bépp doomu aadama bi nga xamante ne ne yaa si ay projet malgré dëkk bi métti na waaye yàlla na projet yëpp si dërëjee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla def jàmm jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Grand Plateau. macha allah mi ngi noonu euh, baxaw moom itam li mu wax am na solo xam naa ni bari na ci ay ndaanaan yoo xamante ne nii euh, dafay jàpp ñoom itam ci seen bind Euh, lu bëri moom ba ah, moom itam lu mu joxe comme message am na solo lenn rek laa gis euh, waa ibob bi di ko tooñee célibataire bi mu doon takk na ah, ah bravo kon ba parce que xale yi ko doon xas yëpp ci célibat bi lañ ko doon xasee. macha allah <laughs> waaw am na jom takk. voilà c'est important. Euh, kon yaa ci des. man waa xanaa nga ñaanal ma rek. góorgóorlu rek. nga ñaanal ma rek njoon. d'accord xale yëpp bañ nañ. xale yi ku ci ne ci ñoom ñaan naa leen bañ ñii.

yu ñuy seetaan euh, di baal wax plateau bi yëpp yal na ñu yàlla boole baal ñu fekkee ay déwén yu yu yu bëri bëri di ñaanal tamit kilifa diine yëpp xam nga di ñaanal euh, suñuy waajur yi waaw euh, fu ñu nekk yal na suuf sedd seen kaw ñi nga xam ne ñoo ngi dundu yàlla na fi yàlla bàyyi suñuy wet ba ci kanam a kanam. di profito tamit di ñaanal sénégalais yëpp yal nañu yàlla musal ci mbas mii nii di lëmbee àdduna. yal nañu yalla ar ar suñu ay njabot waaw jëlee ko fi ci lu mu ci lu mu gën a gaawee euh, ñun nak naka ñu impacté bon num ñu impacté c'est juste que amon nañu ay ay ay peut-être date ay concert ñu waron def amon na ben sortie pré album tamit bo xamné ne prévoir nañ ko def mois bi ni passé avril donc peut-être mbass mi ça a empêché loolu nono mais santa yalla rek santa yalla parce que lu lu yalla Euh, xas ba def waaw moom euh, ndogal gi waaw la rek waaw nga mën a def di ci wéy permettre nañu tamit gën a tëju gën a liggéeyaat studio liggéeyaat sax yeneen mbir amaat tamit yeneen gis-gis ci lu ñu bëgg a def donc dañuy sant yàlla ci loolu seul malheur bi mooy amna ay entreprise yu bëri yu mu gal encore amna ay bana bana yu bëri yu mu gàllankoor dëkk bi xawna na taxaw amna ñi nga xamne ñu bëri wax nañ dem fu nekk ci aduna bi euh, am seen ay business représenté seen ay réew donc euh, mu mu jew ñuko am ak ñi nga xamne ñak nañ ci sen bakan waaw di ñaan yalla na suuf sedd sen kaw yalla xaare leen ci aljana yu gëna yu gëna yu gëna a kawe waaw en tout cas ñu ngi ziar ñep di nuyu ñep di len remercier encore une fois ci dalal bi et di ñaanal ñep yalla ñu yalla musal ci ci mbass bi Simon mi ngoog ñoom tamit ñu liggéey liggéey bu am solo ci eh, xeexu eh, mbas mi gis nañ leen ñoom ñoo kenn ku ci na jël nga sa xalima eh, bind et message itam am na solo nañuy bàyyi xel message yi nga xamee ni ñoom ñi ngi koy joxe dañuy dem xool beneen xale boo xamee ni bi mu ñëwee Sénégal yëpp a ko nangul mën a wayam li koy firndeel moo di ma nga ca ginnaaw Youssou Ndour suwaadu ñu dem xool ko waa ah, asalaamaaleykum waa Grand Plateau di leen nuyu bu baax di la nuyu Momo di la nuyu Alima di nuyu wa senegal yep kep ku ñuy sur la Sen TV di nuyu fans yep di len déwénatil di len balu ak bu baha baha baax te di len bal ak di ñaan yalla ñu koy ay at yu bëri bëri bëri bëri sha allah di ñaan yalla yalla téggil ñu mbass mi nga xamné mo ñu sonal yalla nangul ñu sunu koor yalla ñu bakkar yi te yok jëf yu rafeti té te ñu xéewal gu sawan bawan Covid bi dañuy ñaan bu baax nag yàlla jële ko fi yàlla teggi ñu ko ndax metti na fépp mépp na metti na ci ñëpp ndax euh, bu ñu demee ba ñun artistes yi mënatuñu bouger Sénégal kenn mënatul génn moo xam loo mun ci looy munti liggéey ci looy munti dox mënatoo génn mënatoo dem fenn lépp ndax benn virus boo xam ne kii moo la jël ñëpp du ñu def lu dul di ñaan yàlla mu teggi ñu yàlla teggi virus bi yàlla génneel ñu ko fi mu gaaw ñu ngi jafanoon nag di euh, gungewaale fans yi di leen taxawu ci réseaux sociaux yi di leen nemmeeku te di ci jaaraale si euh, weeru koor bi nga xam ne mooy jeex ni ñuy feeta tey euh, Aïd el Fitr muy korité di leen ci balu ak di leen ci déwénatil te li leen wax ne nag dinañ ñëw ak yeneen i produits incha allah xëy na Covid bi bloqué nañu mais teewul ñu ngi liggéey.

salaamaaleykum salaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna yëpp di nuyu waa Grand Plateau euh, Momo sama euh, di DJ Prince mooy sa baay di nuyu Alima ñoon sama jigéen sama xarit moom mi nga xam ne bu ñu xamee El Hadj Keita à rajo moom moo tax Alima sama jigéen ju baax ji yàlla na seen jàmm yàgg seen plateau bi rafet na macha allah. maa ngi wax déwénati di baalu ak sénégalais yëpp di baal ak ñëpp di baalu ak diaspora bi. képp kuy béggee waa Sen TV di béggee euh, képp kuy béggee El Hadj daal maa ngi lay baalu ak euh, di la wax euh, yàlla na la yàlla defal jàmm fi nga nekk yàlla defal ñu tawféex sutura ah, yàlla jële fi feebar bi nga xam ni moo ub sunu bopp yi ndax bu dul woon feebar bi instant yi dem nañu génn dem xooli suñuy xarit xooli suñuy am di jàmm mais fi ne nii dañuy lek rek tok kër ga mënuñu def lenn lu dul euh, toog baalu leen ak xala di bégé ñëpp di bégé aduna bi yëpp merci beaucoup elage Keita message bi amna solo buñu faté ñom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ce euh, message bo boole nga ci waye bo boole nga ci itam mesure barrière yi euh, pour ñu bañ diko faté fàtte alors egsi nañu ci njeexitalu émission bi dañuy def dernier tour de table kenn ku ci nekk taggo joxe ce message ak li nga bëgg wax Jana Euh, sanc bi rafet na rendez-vous euh, xam naa ni di nga ñu indi yeneen euh, astuce beauté alors c'est dommage que dégguñu la dinaa ñëwaat si yow dinaa ñëwaat ci yow Pamata ñu ngi ci njeexitalu émission bi lan ngay tàggoo téléspectateurs yi waa di Sante, sant di leen gërëm ak euh, encore une fois mais euh, boo ma ko permettre rek ma félicité ki nga xamante ne Alassane parce que tey euh, au delà de carrière sportive bi nga xamante ne da ko da ko mi ngi œuvre sociale bi te loolu dafa nekk lu am lu am reconversion voilà reconversion Bon, mu def dafa nekk loo xamante ni mi ngi jàppale ñeneen ñi nga xamante ni loxo jotul seen ginnaaw donc dañ koy jaajëfal di aussi Simon Kouka mm-hmm. ak waa parce que ñi ngi mm-hmm. wax di distribuer ay masques loolu bu ko parce que am na ñoo xamante un seen loxo jotul seen sengina. mënuñu euh, peut-être wutal seen bopp ay masque di leen jaajëfal bu baax di leen di leen euh, euh, encourager ci li nga xamante ni seen liggéey la peut-être benn question lay am pour sama yaay ji mhm. di ko laaj rek nagam héritage bi ñu ngi koy xalaat parce que tey jii moom boo déggee lu mu la wax yëpp jaar-jaar la cest à dafa jàng ñu coaché ko mhm. te yàqamtiwul

musique bu nekk lii di nekk suñu culture mais boo ko indi woon ci leneen aussi mu jàll si loolu est-ce que tey jii am na peut-être si këram wala si jarbaatam ñoo xamante ni yaakaar nañ dinañu mën a euh, préserver suñu suñu culturel parce que ñi ngi dem ci mbalax mais boo moytuwul mbalax bi dina dem ba suñu culture dootuñu amati dara loo xamante ni dañ koy fàttaliku di leen jaajëfal yéen ñëpp dëgg la yaay dina ci tontu léegi bala moo tëj incha allah euh, ndax bi nga xalaat ci ndono bi waaw wala déet xanaa rek euh, di baaluwaat ak bu baax a baax mbokku téléspectateur yu Sen TV yëpp euh, di wax nag euh, ne ñu nag comme ay reporter lañ ak lu nu mel. Mm. wax yombul à chaque fois également dañuy génn ci terrain bi di def ay reportage wala ñu ñëw taxaw ci plateau bi di wax ak askan wi xëy na nag wax nañ loo xamante ne neexul ñenn ñi ñu leen ci jéggalu bu baax a baax di leen wax rek dinañ ñëwaat ak yeneen yi ay émission yoo xamante ne incha allah dina neex askanu Sénégal gi yëpp incha allah merci beaucoup. Jana lan ngay tàggatoo nañ yàlla partagé waat ak yow partagé ak yëpp mm-hmm. plateau aussi nous allons innover sur le plateau de rendez-vous indi ay yeneen wax wax ci astuce bien-être wax ci parce que li fi nekk yëpp yi nañ snap yi da ngay bien vrai que faire mm-hmm. mais yi voilà ci waxtaan bu baax d'accord mm. donc euh, rendez-vous rendez-vous ah mm. jox rendez-vous rendez-vous d'accord Momo Wade l'héritier du prince. Alima xanaa di santaat yàlla bu baax a baax <clears throat> di jaajëfal téléspectateurs yëpp parce que lépp ñoom la man moom ñoom laay ubbee ñoom laay tëjee ginnaaw mhm. ginnaaw yàlla ak logo bi donc maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax et puis di leen jox rendez-vous ci rendez-vous gi mhm. ah donc ak yeneen yoo xamante tamit ci vacance yi ñu ngi koy ñu ngi koy waajal xam nga ñun moment bu ne ak programme yi ni ñu koy ni ñu koy ni ñu koy adopté moment boobu noonu gis nañu euh, corona bi mu ñëwee ni ñu ni ñu defaraatee programme bi pour mën a di wétali téléspect euh, téléspectateurs yi ci ci kër yi donc noonu itamit lañ koy fas yéene defee ci vacances yi donc di ñaan yàlla nag feebar bi teel fi jógee bu ko defee ku ci nekk ci domaine bu nga nekk nga mën ko reprendre at ba mën a euh, di jëriñ ñi nga xamee ni ñoo yaakaar ci yow donc vraiment message bi loolu et puis di wax sénégalais yi encore nous devons respecter mesures de barrière encore une fois nous devons respecter les euh, moytu di def distance comme nous l'avons ñu koy avec les masque masque di donc je pense que si nous ñu ko defee dañu mën a coronavirus voilà euh, mu euh, plateau spécial euh, Korité won euh mënta ñak xam nañ ni mbass ma ngi ci réew mi kenn ku nekk yaangi ci sa biir kër ba tax sen TV comme télévision askan wi la mënta ñak ñu gunge leen man na dafa am ño xamni momo ñom la bëgg a tiant mu di technicien technicien yi xam nga tout au long du mois de Ramadan dañuy gis ñi tok ci plateau yi journalistes yi animateurs yi wala présentateurs yi ñooy ci plateau yi mais ñom dañu fi nekk Euh, euh, ci suba gi ba 5 heures du matin 9 heures fi leen di fekkaat techniciens yi caméraman yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax alors euh, ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi fii ndooy ak Papis Bodian Babacar Mar Michel Papa ak. Sibi Omar Diallo. ak Baba Baba mhm. ak ñëpp. Papa mhm. ah, ñëpp ñu ngi fi. Mhm. donc euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax Aziz Thiandoum. Mhm. Euh, ci euh, son bi Leyti ak ñi nga xamante ne moo di Pa Assane Seck ñoom ñëpp akkan ak maam Sidi ah ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax amuñu seen fay. ak Bougane parce que Bougane parfois. ci moom laa jëm si woon bu ñuy bëgg toog moo ñuy fëggal fii. moo ñuy fompal itamit parfois bu ñu pëndalee fii nii. ci moom laa jëm si woon ca <laughs> ñëw ci moom quoi. <laughs> donc caméraman yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax yan yàlla defal leen jàmm yéen itam ak euh, techniciens yi nekk ci régie bi yan yàlla defal leen jàmm mais li nga wax léegi président Bougane Gueye Dany man dama am habitude wax ni ci rajo bi suñu collègue de travail la na su ma ko waxee dina jaaxal ñenn ñi mhm. mais li nga wax léegi moo koy firndeel ñun bu ñu waree def moom dafay bokk ci technicien yi jàpp ci liggéey bi bu bale amee day bale bu ah fomp amee day fomp ah donc dafay nettoyer dafay jàpp ci liggéey bi non seulement euh, euh, ci euh, mbas mi il a mis les moyens

donc partenaires yi nga xamante ñoo grand plateau. Nous ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax amuñu seen fay merci euh, Baye Modou Ndongo design euh, Ahmed Euh, euh, salon Ndeela. merci beaucoup ma fàttali la sa xarit Aji Thiam tamit. sa xarit Aji Thiam bijouterie la ñoom ñëpp dañoo jàpp ci grand plateau. ak euh, ki nga xamee ne moom moo di Ndeye Coumba VIP hair moom moo jaar suñu coiffure tey moo Modou merci beaucoup ndongo design jërë ngeen jëf ak Ahmed Tidiane yéen ñëp ñu ci doon jàpp. gërëm nañu leen bu baax añatu ki ne laam yaay booy ñun dañuy am mbégte saa su ne di bokk ak yow jataay dañuy am mbégte saa su ne di toog ak yow waaye dañuy am mbégte saa su ne di la dégg ngay way euh, suñu xol di neex macha allah dañ lay ñaanal gudd fan ñaanal la wér euh, yal na nga yàgg ci suñu kanam yal na nga yàgg ci suñu kanam. waaye amin waay maa ngi kontaan lool sama doom ji li mu wax rek mooy woy moom bu fekkente ni bi di yàlla man ba pare nag yàlla daf lay may nag. Mhm. am na loo xam ne nag suñ borom moo koy maye. Mhm. yàlla moo def ci ñun. am na ndaanaan yoo xam ne yàlla moo def nu mën woy dëgg la loolu nag du suñu borom moo nu ko mayee muy jagle ci ñun dëgg la nag nga juddu am baat bu neex mën woy xam xam xam xam gi moom ak am expérience bi moom loolu lu ñuy jàng lay doon mais mënuloo xëy rek ne man ndaanaan laa ñun dañoo aw ndaanaan yépp dañ daan aw téeméer lan ma daan jox paas ñoom mère Fatou Thiam Samb ak ñoom mère Diop Seck la Saint-Louisienne te damay teel a dem nag sama jëkkër ma man fajar laa daan xëy. di aw mère ndaanaan yi. Mhm. di jël ci ñoom lu baree baree bari. dëgg la doonoon naan ndaanaan ci ndey ak baay xam woy jàng ko ba man ko mais jàng gi nag soo ci bëggee dure fii loo wax di nga ko confirmer. dëgg la fii mooy Sénégal am naa 46 ans ci woy léegi. loolu du du caaxaan li nu ko may mooy vraiment euh, jàng ko ba ba euh, sama sa maam Alaaji lay Naar Samb nee na ndaanaan dañ la koy jiiñ ay at ngay bañ dëgg la na ndaanaan dañ la koy jiiñ ay at ngay bañ dëgg la kon ñun yàlla moo def woy nekk ci sunu xol mais nag ñu jàng ko boo gisee ndaanaan yu mag yi ñu Youssou Ndour boo len déggee ñu way ba léegi rek. wallahi nga ya, xamni ñi ay ndaanaan mhm. a ngi nii coon. woye rek. wallahi dëgg la. nga ya, xamni ay ku lu fadli lan mhm. kenn ko man mana diko da ngay man u mënuloo. dëgg la de. il faut nga jang nak ba pare nak baña baña baña glorifier sa bop di man. di baña a naturel naturellement. dëgg la di way gis nga mag yi dañi way simplement. yow rek. naturellement. yow rek. amoo benn problème. wallaay de way wi di nga koo di nga ko aborder te du la amal benn du la am doo am problème. wallaay dëgg la. way daal lu nuy lu nuy kii la comme kii toog nii. mbooy doo waaw daf ko jong daf ko daf ko donn ci ay maamam. dëgg la. ay bambado la ñu. dëgg la jàng ko ba man ko ku mel ne Ablaye Malick Socé ñoom ñoom Pape Ablaye Socé. Alaaji Malick Socé danañu mag yi vraiment artistes ñu ñun mënu leen a fay. dëgg la surtout artistes yu mag yi maa ngi leen di rendre hommage bu mag parce que bu nit ñemee taxaw tey di jël micro di woy c'est grâce à Youssou wala Baaba Maal wala Ismaïlou nit nag day osé gis nga borom kër gii mhm. man dama koy gis toujours saa yi ma ñëwee fii fii laa koy fekk dëgg la mu ànd koog yéen ba mu jeex et son ngay toog ñaan sama rak mais dafa am jom wallaay dëgg la dafa bari jom xam boppam dëgg la du pour heure rien mu yéen ñii ñëpp kenn ku nekk di fi daan sa doole di fi jële sa teraanga. loolu ku amul jom mënuloo ko. wallaay dëgg la gay ku bëggul sa bopp mënuloo ko. Mm-hmm. journaliste la woon fii. ñun mm-hmm. ñëpp xam nañu. itinéraire seen itinéraire reer ñun ñëpp ñoo leen mag fuuf. baa ñu mën leen rajo Golbert Diagne. Ah, wal fajiri barki démb bi muy wax ci Golbert. Golbert yal na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. dama jooy keroog bi Golbert nelawee. wallaay koy jaale mbokkam yi di ko jaale waa Ndar. di jaale ci biir mbubb sama xarit. wala alaaj cubeeru Sénégal yëpp xam nañ ko. di kenn ci loo way moo ko aw. waaw waaw di ba jaale Pape Bool. Pape Bool ñooñu ñu quitté noonu nga xam ni seen seen dem dafa xaw na metti torop ci suñu xol yi. wallaay dëgg la. waaw ñu ngi sant yàlla daal. Mm-hmm. way daal xale yi daal koo ci bëgg man mën ko fonk. wallaay nan ko fonk rek. man nag ma ne ku ko ci bëgg man mën dangay dangay fexee jege ñi ko man ñii mën nañu ko man aussi. waaw bañ a glorifier sa bopp ni man la. dëgg la. maa ngi seetloo ndeysaan Adja Soumaano dama ko fekk benn sunu. Uh-huh. Euh, Gabon. Uh-huh. bi waree way dafa boot ñaari loxoom mu ñëw sukk ci sama tànk. Uh-huh. ne ma yaay baal ma maa ngi yëkkati sama sama sama kàddu mais loolu frappé ma lool. nga fonk daan naan mën a yuuxu ba ba ba ba romb ma. sut ma jolli ba ca kaw mbaar ko tax taxaw te am maa sax fa ngay yéeg ak fa ngay wàcc du demee fa mu war a nekk. parce que am trop modulation boko ko trop trop trop da ngay guen ngay guen gam harmonie yi génn gam bi. Mm. dootoo nekkati ci ci ci ki bi. mais dafa bot loxom ni ma yay baal ma sama kanam mangi mangi maa sama kaddu lolou frappé ma. da nan nga. ñun nak ñun tam dañu ragalon suñu ñin fi fekkon bi mi am maison de disque bob maison de disque jafé na. wa lolou yàgg ayatu ki ne la bi lolou jafé lako am. wallay deug la. may nuyu nak sama xarit bo xamni dama koy wax toujours ni ko. mooy Umar Sy borom titre foncier. Mhm. Alaaji Umar Sy. Mhm. mu Aminta Fall la seen. Mhm. yéen ma ne Fall ma ca seen ma ne kon guy mi ci jaar na as jëng yaayam bar jàng ma dumee jëng tanoon Fatim Kronguy tubaarkal la maa ngi koy nuy bu baax. di nuyu sama xarit yëpp daal sans exception fàttewuñu kenn. dëgg la tonton Mansour moom. ko mooy sunu idole. wallaay mu ngoog jërëjëf. téléspectateurs yi yéen itam jërëjëf amuñu seen fay yéen a ñu def leader partout merci beaucoup ci yéen ak internautes yi jërë ngeen jëf yéen itam. bilaay xam naa sa jikko xam naa sa ngor ma jaaka faati ngoone ndat naa nangi ko yow xam naa sa ngor bayu ajaab may jambaara ngi sër farma gàtte ma jëy la proñ ngoone jëy laat mbay defri ba jat ma man dan koo fàdd booleeg ngooroog man may maw doy baa mambay biraat jigéen ay bay mambay mbay biraat jigéen a ngaari biraat ngar ke biraat jigéen ñoo bok ndey ak bay biraat jigéen ay sen yaay momi mi bugaat sa jiko xamna sa ngor sama dom ju bax ji jàmbaara ngi Mariasin may sa biige Mariasin may sa biige may sa biige mar ajum nar mi ne ci ndop ñar ka dem mi ci lab may ñin fra mare ndagu degen may dem mi degen may kura faale degen kor bu gandani Serigne Mbacké soxna lo du ko seetaan mu fi ñaaw Mami bugaan Maria may sa biige bugaan nga ni jey jamba arangi man xam sangor bañ go mbañ ngom mbeyaaram zaala jambaarangi ndeysaan Haji fi ma jaar moom ku fa jaar ak ku la yàlla booleel foo tollu di ko way mbañ ko meeram saala jàmbaar a ngi kër lu dëggan gala gat naa ngone tal ña nga yaayam kër dëggan yaay suratu daane maay déggal ni daane ma cab mbaay ni jaay ndeela wat yaay fatu bu xam zangor, sa ngor ni jaay ndee rime i yeeyni ci segook sam ñuk biraama sam misel caaka ñaay usan me duge na saar mi ne si waraaj bi ci bàjjul anta wadd maaku naak jëmuloo maaku na jali balla jala xaar borom njurum yaay mi ci jëmooy ndela la nu fayee ndela maalik fay ci jigéen njuuf teñ maa caw mi jëkk di teñ ci labbaay sa maam golindu mbettee caw njoogu salmaan mi ci saaxib jokkan mi ci mbagam ngóor mi ci bàkkel <laughs> ni xam naa sa jikko bugaan waaw waaw mbañ ngom mbeyaar ab saala ndaanaan ak neex Fichi fii ci seen TV émission grand plateau ànd si clean Clean, détergent bi africain yëpp d'accord ni moo fi ak supermarché low price EDK oil lépp Lolensor leen soxla supermarché EDK oil njëg yu yomb seeni showroom DSL mi représenté marque Inco ak total bi professionnel yépp taamu ak Doudou Poulet def leen seen commande ci 77 568 50 55 47 Oleti 77 566 22 70. Axine boisson énergisante CDX meilleur Koutiawarti, ak Rotine Express Café pur café brésilien le goût du bonheur ak Monlé meewu nag pire Monlé c'est la vie. ak Money Yunil te jot Petit Sénégal CO eau minérale légère au goût naturel CO ak a neex te oyof essaye ko rek Touba ca kanam mi ñax bépp murid mu joxe cotisation 1000 francs weer bu ne Sénicartour leader ci location de voiture te ndayaan ataaye bi neex te gën ci